épinglé rapport IGE gestion bi nga xam ni moom la yoroon fële ci COUD terewul dañu ko jël nommé ko ministre boobu ba tey ay a pas de euh, beneen bi euh, Mamour Diallo Ousmane Sonko ça a fait débat parce que quatre-vingt-quatorze milliards en question je crois que lu ñu waroon leeral la parce que milliards mooy ngay jël ay junni di ko teg fii ba Thiès te du jeex hmm. <laughs> milliards yooyu ñun ba tey coow li euh, wuriwul leerul d'autant plus que saisiroon nañ ay institutions yoo xam ni kuréel yoo xam ni ñoom ñooy saytu di càmbar euh, mbir yu mel noonu lu jëm ci wàllu ger ak ci wàllu yorin ba ñooñu aussi def seen rapport te mujjul fen mm-hmm. donc euh, Macky kon bu ko defee c'est sur le plan politique parce que mu ngi xool nu muy renforcer boppam c'est-à-dire tey ñépp ñi nga xam ne ñoo ngi koy monter au créneau sur le plan politique mu ngi xool na la leen di renforcer euh, kum ci joxul poste bële semaine bi si topp dina xool nu mu koy def parce que euh, boo demee fële peut-être ci Louga euh, beneen tendance bi muy ki nga xam ne mooy Moustapha Diop euh, joxaat nañ ko ministère bi mu yoroon. Mm-hmm. donc juste à côté Mamour Diallo mu ngi fa il faut jox mais aussi pour service rendu parce que Mamour Diallo aussi ki nga xam ni bokk na si adversaire Macky Sall yi gën a yi ko gën sonal Mamour Diallo a été au cœur du dispositif man maa ko wax bu ñu demee ba ay ci ay kàddu ñu gis ni que. doon na seex ak Adji Sarr wala doon na wax ak Adji Sarr moo xam dafa doon bokk si ñu doon tirer les ficelles wala di utiliser loolu est-ce que tey nekkul rançon euh, ci par rapport à service yi nga xamante ni moom la moom la nekkoon pour défendre Macky Sall ci cause boobu maintenant man sam problème au-delà de ça liñ ko jox mooy ONAS depuis des années les Sénégalais ne sont pas satisfaits ci wàllu ONAS parce que dañu am de réels problèmes d'assainissement tey mission boobu warul nekk mission bu bu bu ndaw warul nekk rek structure yoo xam ne dañ koy jox des hommes politiques euh, juste comme li laay di wax pour des prébendes et des privilèges mais pour que ñu régler la question de l'assainissement mm-hmm. tey boo demee Médina euh, quartier bëri nit ñi mënatuñu am hygiène de vie parce que tout simplement ndox yaa ngi ball mm-hmm. mbedd mi yépp foo dem mu ngi ball nga dem Fass euh, Parcelles Pikine les gens ont même du mal à respirer c'est-à-dire hmm. waxatuñu sax ay waxu ndoxu taw mais dëkk bi yëpp nekk ndoxu foos ñu am véritablement problème assainissement ak canalisation hmm. kon tey euh, ñun la ñuy xaar mooy résultat yu mel noonu mais pas ñu jël yenn structure di si jox ñenn j'avais toujours dit sax pour am na yenn poste yoo xamante ne direction hmm. publique ñaar lañ ci war a njëkk xool c'est-à-dire tey ki ñu koy dénk si mu jot a jaar ndax amul dara luñ ko mën a reprocher muy benn mais su boobaa il faut yoon atte je crois que pour l'intérêt des Sénégalais de tout le monde waroon nañ xam fan moo am est-ce que moom daa luubal 94 milliards wala est-ce que dañu jëloon teg loolu ci deram mais je crois que Ousmane Sonko avee dit que pare na pour une preuve yu mel noonu donc on devait poser ce débat sur la parce que justice aussi même au-delà de affaire de àtte war na leeral opinion bi ñu xam mais beneen bi lu jëm ci wàllu assainissement euh, dafa nekk loo xam dafay stratégie tey waroon nañ def appel à candidature si yenn sociétés yi malheureusement c'est ce qui nous est avec la poste dinañu arrivé ak yeneen direction yoo xamante ni c'est des gouffres à milliards et ça va continuer Mm-hmm. alors euh, sëñ Bamba aujourd'hui euh, mm-hmm. même euh, li nga xam ne mooy rapport 2020 2021 2022 bi nga xam ne OFNAC jég jébbal na ko mm-hmm. ñëwaat na ci li nga xam ne moom moo jëm ci direction générale des impôts ak plainte bi nga xamante ne Ousmane Sonko defoon na ko contre Mamour Diallo ci li nga xam ne moom mooy doxalin bi ñeel 94 milliards yi confirmé li nga xamante ne moom moo am ci plainte boobu aujourd'hui encore polémique am parce que y a nomination de Mamour Diallo ban lecture lañ ci mën def waaw polémique dina am euh, euh, Fatou parce que euh, en 2019 on se rappelle li nga xamante ne moom la OFNAC waxoon si kaawu euh, ki nga xam mooy Mamou Diallo OFNAC dafa leen a boole moom yi di ak Tahirou Sarr def leen li nga xam mooy association de malfaiteurs jàpp ne aussi dañoo luubal jàpp ne aussi dañoo laal alalu askan bi loo xamante ne waruñu koo laal te kii di président Macky Sall bi nga xamante ne mooy kilifa ñëpp. moom moo taxoon fii barki Demba Ndiaye mu wax ne que euh, la CREI est faite pour euh, l'opposition et l'OFNAC est faite pour le pouvoir ñuy gis ne aussi à chaque fois le président Macky Sall il est paradoxal sur lui-même parce que moom ay waxam parfois ak ay jëfinam day wuute barki Demba Ndiaye tout récemment la fi président Macky Sall wax ne il faut que ñi muy ñi nga xamante ñoom ñooy ay ndomba baat muy ministre ak li nga xam mooy DG dañu am jikko yu baax ñu yaakaar ne si loolu lay doxee mu xëy xëy commencé defaat ay nomination ki nga xamante ne mooy euh, Mamour Diallo dégg nañ coow yi nga xamante ne moo fi jub ku nekk di wax ci wàllum lubal euh, xaalis bu bëree bëri muy jëm si li nga xam mooy quatorze quatre-vingt-quatorze milliards ñu yaakaar na peut-être loolu sax moom dina si jëm a andi ay leeral andi fi li nga xam mooy clarification bu ñu fàttali ne. mais mais moom lim ci ni leeral mooy mbir yi dem na justice donc moom foofu euh, euh, li ko ci waroon xëy na dem dem na muy ñu àtte leen. ñu wax ci également lan fay tukkee. bien sûr bien on se aussi que si àtte boobu aussi euh, nekkoon na loo xamante ne bi ñuy fàttaliku waxoon nañu fi dossier sans suite lañu fi waxoon non lieu c'est-à-dire defuñu woon sax confrontation ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo defoon plainte beeg ñoo defoon li nga xam mooy demande beeg yooyu mhm. accusation yi. ñu yaakaar ne xam nañu ñuy demee Sénégal. bu dossier bi féetee si wàllu nguur ñu taf tafee ko euh, def li nga xamooy mooy blocage ba kenn du si wax bu fekkee ne dossier bi si opposition bi ñu étaler ko yaatal ko ba bëgg leen teg ay guuta te loolu nag mi ngi nekk si xelu sénégal yi ba léegi jàppe ne Mamou Diallo mii moom ba léegi leerlu li nga xamante ne moom lañ ko doon accusé wax naa la léegi ne la dem na ba of nag euh, boole woon moom ak Tahirou Sarr def leen li nga xam mooy association de malfaiteurs ñu yaakaar ne peut-être loolu sax balaa président Macky Sall jël benn ndogal si di ko falaat feneen dina mën a jéem a leeral loolu parce que moom moom fi woote gouvernement sobre et vertueux mais gis nañ tey fi mujjee mooy ñëwaat na joxaat na ko beneen poste encore kenn xamul la moo tax mu jox ko poste bi parce que peut-être que président Macky Sall il est dans sa logique parce que moom moom fi wax ne il va créer un gouvernement de combat ah man dama jàpp ne nag euh, combat boobu nag président Macky moom ñu ñoo ñu ñoo xamagul ba léegi lu waxee moom mi ngi si combat combat mhm. en quel sens combat parce que dafa soxla ay xeexkat ay xeexkat wetam combat parce que dafa bëgg a liggéey réew mi combat parce dafa bëgg a ay nit moo xam kenn la wala moo xam ay nit la en tout cas lu si xew moom président Macky Sall gouvernement de combat la woote woon te gis nañ ne saa su ne la mu fa waxoon ba nit ñi yaakaaroon ne dina si nekk saa su ne da koy teggi li ma la wax boo xoolee ki nga xamante ne mooy euh, euh, euh, Cheikh Omar Anne gis nañ fii li ko nag waxoon demoon na ba nag ne lépp lu jëm si wàllu alalu réew mi wala bien public bu si loxo kii di Cheikh Oumar Anne nekkati loolu la ko rapport bi of nag waxoon demoon ba jàpp ne kii waratu laal lépp lu jëm si wàllu alalu askan bi nga xëy xëy tey jile ko fenn baat ko feneen man parfois j'ai du mal à comprendre nan la président ma Sall di di fale parce que moom parfois comme li ma la wax sànq dafay mel ni comme dafay xaw a paradoxal à lui-même parce que su ma gisaatee kii nga xamante ne mooy par exemple tey euh, suñu ancien ministre des sports muy Matar Ba man de en tant que sénégalais citoyen la ma gisoon mooy il avait bien travaillé il a fait des performances mais peut que li si biir ñoom ñoo koy xam ñoom ñi fa nekk di ko pencoo ñu xëy xëy le président Macky mu wàcc ko foofu ak amertume sénégalais yu bëree bëri yu si meroon yoo xamante seen xol jeexoon na si parce que dañoo jàpp ne c'est un travail muy Matar Ba léegi nag peut-être que moom mi ci Macky Sall am na lu tax mu wàcce ko peut que am na lu tax mu mu changé ko poste peut être am na lu mu fa dégg wala même bu fekkee dafa am lu ko naqari hmm. mais bu fekkee da ngay naq da mais dañoo xëy xëy gis comme dafa ko directeur du cabinet moo tax may laaj man parfois Macky Sall lay falee nan lay follee ak lan la si wuut parce que moom dafay combat parce que dafa soxla xeexkat yi dafa soxla

wala blanchiment euh, total moom la ñu moom la ñu nemmeeku wala moom la ñu ko mën a jàngate ci cette nomination de Mamour jàll bon euh, da nga koy euh, jëlee ci angle boo xamante ni si. Mhm. bi ñu bi nga xamante ni yëkkati nañu ci coow 94 milliards yi. ñu yóbbu ko ci wàllu yoon. le juge dafa dafa rejeté woon. li nga xamante ni si moom moo doon la confirmation de l'ordonnance de refus d'informer dans l'affaire bi nga xamante ni si moom la jugé woon nii Ousmane n'était pas du tout euh, n'avait pas du tout des compétence allant dans ce sens de de se constituer en partie civile loolu taxoon mu rejeté ko bi ñoo ko attaqué waat cour d'appel mu rejeté ko ñu dekk ñu bàyyi ko foofu sans suite nit ki nag bu dee dafa la jege te am compétence nga mën ko tab mën nga ko tabb mais li nga xamante ni si dañu ko ci tudd mu doon moomeelu askan bu Sénégal doon loo xam ni lu yegg ci euh, euh, juróom-ñeent fukk ak ñeent ci milliards ci suñu gafaga réew hmm. jëm ci ay ndono hmm. yoo xamante ni fa la doon jëm ñu tudd ko ci tuumaal ko ci ndax dañu naan tuuma la ndax atteegunu ba mu leer tuumaal ko ci mu doon sa jege ñaale nga dindi ko ci ndomba tànk yoo ko joxoon daal di koy bàyyi mu toog akum négandiku daal di dem ci wàllu yoon ba fii ñu toog France daal di xëddeen dara leeragu ci yaakaar naa bala nga ko tab war nga leeral loolu ñu gàcc ci ndoddam ba pare waaye nag du du mbañeel bu dee dañoo jël kii nga xam ni moo di Mamour Diallo ñu jàpp ne am na compétence yooyu c'est un inspecteur des impôts war na mën a liggéeyal Sénégal ñu daal di koy jël tabbaat ko loolu du du lu ñuy jaaxal leneen li boo ko toppee ba ci kanam coowu Prodac juddu woon na fi ci ay milliards ñoom Mame ñii lañ ko waxaloon tey jii ñu ngi nii waat tabat leen bu dee koo xamante ni si dënd tudd ci guute rek ci ay koppar ci nguuru Macky Sall moom président Macky Sall waruñ la nommé waat ñi ñuy war a dàq dina bari ndax bari na ci ñoo xamante ni si tey ci seen biir tuddoon nañ leen ci ay yëf ca démb te ba fi mu toll nii leeragul tey jii delloo si waat nañ leen donc da ngay jàpp ni rek euh, président Macky Sall xool na ni Mamour Diallo am na compétence yi mu ngi toog ci ker gi waxul dara dara leerul te amal na ko njariñ yaakaar na ni mën na ko liggéeyal ci fi nga xamante ni si fa la jëm mu dellu siwaat ko parce que nag njiitu réew du ànd ak njudul ñi nga xamante ni si ñoom la wóolu ñoom la mën a jël daal di leen di jox ay tànk beneen wàll bi nag sunu appareil judiciaire bii nga xamante ni si mooy wàllu yoon di atte dana ko war a gën a dooleel ci yu baree baree bari donte doole ji sax mu ngi fii te wax nañu ni yaa séparation des pouvoirs waaye dañuy gis ni ci kaw nguur hmm. ñi ànd ak nguur ñaare bu leen tuuma toppee da yéex lool ngir ñu leeral ko te yaakaar naa ni sax ngir sa njeexital ëllëg daal di oyof ci lii nga xamante ni si tey mel na ni njiitu réew mi mu ngi ci ñu bari naan munta dem ndax dafa bëri ñoo xam ne bu wonee ginnaaw ay rëq-rëq mën na leen a dab ba tax day laajaat troisième mandat wala nangam sangam lay yu mel noonu ñu di ko teral ñu di ko tëral waaye li nga xamante ni si moo ëpp solo mooy file ak yaa ngi ci bopp nguur gi lépp loo xamante ni si gàcc nañ ko ci sa njaboot yoon la nga leeral ko et j'espère que Mamour Diallo moom ci boppam ci loo xamante ni si ngir ñoñam la ngir njabootam ngir toogaayam gën a woyof mooy mu leeral lii nga xamante ni si mooy tuuma yi ñu gàtt ci moom doon nee na li ñu ko ci waxal dara am alors une affaire classée sans suite Mbow Abdoulaye est-ce que du président de la République euh, dafa bëgg wan askan wi ne Mamour Diallo amul dara lu ñu koy toppee et am na confiance encore pour tabb ko fi nga xamante ne fa la ko tabb dem muy ONAS bu ko tapee mooy nga ko renouveler confiance. Mhm. par rapport li nga xam moo di choix Mamour Diallo. Mhm. et par rapport à la gestion de la direction générale de l'office de l'assainissement du Sénégal du ONAS. Euh, nañu arrêté wu si nit ki kan moo di Mamour Diallo dafa am jaar-jaar. Mhm. dafa am jàng dafa am ay lijaasa. parce qu'il est inspecteur principal des impôts et domaines. dëkk dénk nañ ko kuréel goo xam ne moo doon directeur des domaine donc bu ñu yemee ci compétence su nit ki rek dañu naan am na cër boo xam ne mun nañ ko ci sukkandiku pour tabb ko ci yenn post de responsabilité ñaareelu mbir bi le président de la république a le pouvoir discrétionnaire nommé ku ko neex ak fu ko mm. neex mm. Euh, par rapport ak li nga xam ne moo di décret bi nga xam ne jox nañ ko ko ak pouvoir bi nga xam ne askan bi moo ko ko dénk waaye loo xam ne am na li am moo di euh, comme ni ñu ko waxee rek tudd nañ ko si ay mbir mm. yoo xam ne amaana dese naa set te rapport nag bi mujjee dëggal na pratiquement li nga xam ne Ousmane Sonko waxoon na ko si affaire u 94 milliards yi amaana président dafa sukkandiku si commission d' parlementaire bi nga xam ne def nañ ko sur l' affaire des 94 milliards te ñoom ñu mm-hmm. blanchir Mamour Diallo même bu fekkee nañuy fàttali ni euh, commission d'enquête boobu c'était une commission daanaka unicolore parce que benn couleur kese moo fa nekkoon. Mm. c'était principalement composé de députés de la coalition majoritaire euh, qui était qui est Benno Bokk Yaakaar euh, sous la treizième législature quand on sait également que ni lépp li nga xam ne moo doon député opposition dañoo gàntal li nga xam moo di commission d'enquête boobu par rapport ak si anam nu ñu ko tegee ak anam gi ñu bëggoon liggéeye ba ñuy yegg si li nga xam ne rapport boo xam ne rendre nañ ko public mais dans tous bien que si le président Macky Sall euh, s'appesantit un peu sur les conclusions de la charte de gouvernance démocratique issue des assises nationales su sukkandikoo si conclusion commission nationale de réforme des institutions dina am beneen changement boo xam ne sax moom da koy gën a da koy gën a féexal da koy gën a libéré parce que du ñu xalaat ni dafa jël nitam wala ku bokk partem wala ku bokk coalition jox ko poste de stratégie euh, poste stratégique autant pour moi parce que en réalité poste la goo xam ne post goo am dayo te poste goo xam ne dañu fay tudd alal gu bari bu defoon yenn post yoo xam ne dañuy def comme ni ñu ko waxee sànq appel ak candidature xëy na dina changer lu bari si nu ñuy tabbee ak ka ñuy tabb ak fañ ko war a tabbee ak ñan ñoo ko war a tabb def naa loolu dina am solo mais quand même euh, quoi qu'on puisse dire xëy na moom am na foo xam ne sukkandiku si na ko pour man ko nome même si l'on sait que effectivement y a des dossiers encore pendant concernant la personne la personne de de Mamour Diallo maintenant nag l'erreur commise par kii nga xam ne moo di Ousmane Sonko dans le dossier c'est d'avoir déposé une plainte en se constituant partie civile mmh. te fa fànn woowu nag defe naa ni euh, kii nga xam ne moo di magistrat instructeur amul woon leneen lu dul daana rejeté li nga xam moo di mmh. dossier bi xëy na bu jëloon li nga xam ne moo di dossier bi def plainte goo xam ne koy déposé fii nga xam ne moo di office national de lutte contre la fraude et la corruption du OFNAC amaana xëy na dina gën a mën a am jeexital mmh. comme nuñ ko génnee si seen rapport ba tuddaat si mbiru 94 milliards yi dans tous les cas lu si am rek moo di euh, président moom moo am pouvoir discrétionnaire maintenant il appartient au peuple sénégalais d'apprécier et de voir effectivement kan la ñu tabb est-ce que effectivement du point de vue de l'éthique professionnelle et de la déontologie professionnelle nit ki mérité na place googu bu ko mérité wut président tabbu na ko bu mérité président tabbu na ko maintenant nag sénégalais ñooy apprécier mhm. appréciation bi nag day am rëq-rëq day am njeexital sur véritablement le plan politique mais également sur le plan électoral mhm. ñu ci a yokk Chawma euh, xanaa après euh, pour man Euh, cër bi nga am tu dans la fonction publique tu es fonctionnaire suñu calculer même ministre salaire am bu ñu ko tegee calculer ko ci at ci ñaari at mënu fi yor ay milliards mais tey ku ñu fi tabb at ñaari at tu te ak ay kër tu te ak di bien c'est extraordinaire et puis milliard nu mu toll milliard un milliard nu mu toll cest war dire war nañ xoolaat suñu bopp daal c'est-à-dire euh, comment on peut imaginer avoir des fonctionnaires riches comme Crésus ah mu ngi noonu nag am na yoo xam ne nag su amee comme tu as dit ah, euh, ñun ñooy encouragé yenn pratiques yi et puis li ko gën a cautionné président moo koy cautionné amul leneen tu l'as dit ah bu fekkoon ku ñu tudd ci ay mbiru luubal doo falu amaana moom sax du falu parce que tuddoon nañ ko fi moom aussi si ay si dossier yu mel noonu ci jamonoy bi ngi nekk ak nguur Ablaye est-ce que dafa nekkoon opposant moo tax ñu ko doon taqal wala dara ça on sait pas mais en tout cas euh, suñu système judiciaire li mu wane lii dong la du leneen coow pétrole mujjul fenn beneen coow bu ñëw du mujj fenn on va continuer comme ça ba kañ parce que nit ñi euh, même bu dul dara yoon liggéeyam waxuma sax informé mais liggéeyam tey lépp loo xamante ni lu ku ñu jox benn fonction wala benn cër. Mhm. ñu dégg ci dara war nañ ko lijjanti càmbar ko pour des questions de de de principe de gouvernance et de transparence parce que suñ la joxee une responsabilité. Mhm. buñ la ci tuddee yaa war a njëkk dox ci liy seetal si dara Ousmane Sonko nag il a été dans son rôle am na lu mu gis posé na débat bi qu'il soit partie civile ou pas je crois que tey dañu war a xoolaat sax outils yi ñu am par exemple je donne un exemple de l'OFNAC. Euh, OFNAC euh, baax na ay textes am baax na mais dafa limité. parce que nag amul pouvoir de saisine dégg nga seenam Ndiaye jaxate nee na ñaata dossier la teg ci table procureur bi mais mënul aboutir bu fekkee ne dañ teg ay instruments yoo xam dañ ko teg est-ce que dañ ko teg pour faire du maquillage institutionnel, pour dire au niveau international que nous, on se bat contre la corruption, le blanchiment d'argent, etc., etc. Mais alors qu'on ne va pas au bout euh, des choses dans ce, dans ce procédé. Moi, je crois que euh, comme nous le faut nguur pour nous, Ngour, moi, nous avons nous avons c'est à la c'est ça. Mm. Quatre ans après Bibi ne Fofo, direction générale des impôts, il revient encore à 15 mois de la présidentielle sans que Mangela Sall le jeu, renforcement politique, mm. également. Mm. Moi, artu yenn saay ci yenn nomination yi pour ne pas dire sa nom sa nomination euh, naka nga gisee loolu justement justement man dama dama jàppoon sax il a des non-dits dans les nominations de Macky Sall c'est-à-dire ni muy falee ak ni muy wàccee am na loo xamante ne les waxul la parce que ma man dama comprendre daal comme li ma la wax nan la Macky Sall di di falee nan lay wàccee euh, dina fal koo xamante ne ñëpp ko contesté mu main maintenir ko kenn du wax ñu gis koo xamante ne ñëpp ko bëgg mu wàcce ko kenn comprendre fal na fi ki nga xamante mooy ministre de la justice Ismaïla Madior fal tellement contesté mu maintenir fal na fi ki nga mooy ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome tellement contesté mu maintenir amoon nañ fi kii di Amadou Hott ñëpp jàpp ne bokkoon na si ñi gënoon na indi li nga xamante ne mooy euh, taxawaay bu am solo si wàllum économie mu wàcce ki nga xamante ne mooy Matar Ba ñëpp jàppoon ne def na ay performance yu am solo si wàllum sport wàllum football mu wàcce ki nga xamante ne mooy Mamour Diallo ñëpp nekk fii di wax coow te d'ailleurs sax dinaa waxal si la Fatou man même su may déggee ñu ne yoon am na lu mu ko setale mais nan la si yoon waxee non lieu non lieu mooy lan sans suite kay sans suite boo xamante ne yow woowoo sax les accusateurs woowoo ñi nga xamante mooy procès après que nit ñi toog mën a def débat parce que réew mi tamit suñ ko bëggee ñooyanti suñ ko bëggee jooyanti foog ñu poser le débat nga xëy xëy xëy ne loolu sans suite la teg ko fa le dossier classé nga falaat ko léegi nag man damay ko demander parfois nan la président bi di falee di folli te daye sax mën nañoo jàpp ne falam ak folli googu am na leen loo xamante ne peut-être loolu si mbëbët moo tax ma ne bizarrement les choses se suivent mais les choses aussi s'éclaircissent davantage ñu gën a leer parce que boo ñëwee ne je veux un gouvernement de combat on peut dire aussi qu'il est dans le combat gis nañ fii barki démon yaay sax gis nañ fii Ousmane Sonko génn fii si sotti na ko combat bi ba mu commencé dafa yàgg yow yaa ko yéex a xam kon ñoom ñu ngi si peut-être combat ban mooy combat politique kon dama jàpp ne nomination yi ce sont des nominations purement politique si de loolu laa si mooy euh, gouvernement boo xamante ne wala nomination yoo xamante ne politique moo ko lal waaye nag liggéey réew mi xool jafe-jafe réew mi xool jafe-jafe li nga xamante ne mooy askan bi peut-être que nekkuñu si moo tax man jàpp ne gouvernement bi du moom mooy andi ay le plan social du moom mooy andi ay solution sur le plan économique jàpp naa ne comme li ma la wax bu ma def la mooy les bagarreurs ñi dàq xeex ña nga si kanam les cool booy ñi nga xamante dañoo kuul kenn du wax ñoom ñëpp la ñu génnee ñii ñu leen toog leen si ginnaaw xaar. alors alors euh, loo ciy ajouté Saliou Joseph Abdoulaye wala ñu dem ci beneen point bi. waaw dangay ngay jàpp ni rek euh, président bu dee pour kuy renforcer ñi nga xamante ni si ñoom la fas yéene àndal wala <coughs> ñu jàpp ni tab bi muy tab dafa doon dooleel ñi nga xamante ni ñoom la fas yéene àndal euh, da ngay gis ni rek. il toujours di moom président Macky Sall que sama liggéey ci bopp réew mi jeexagul te itam Euh, soxla na gouvernement d'attaque euh, le directeur bi nekkoon ONAS gis nañu ni euh, jóge na fa dem na ànd ak euh, ki nga xam ni moo di président Ousmane Sonko keneen ki ñu fa tabboon jëlee nañu ko fa delloosi nañ fa Mamour Diallo mais da ngay xool ni rek zone yu baree baree baree bari yoo xam ne président dafa néew doole élection yii jàll yu locale yi wane ko élection législative yi wane ko dooleem di fa wàññeeku mu ngi nekk di ko renforcer parce que boo gisee ñi dellu siwaat ci gouvernement am yépp mën nga ni ñii ñooy ñayu xare yi nga xamante ni saa yu mësee bàkk mbir rek te jiitu ca moom ñooñu ñooy doon fare gembere yi koy wër ngir mu mën a jeex ngir mu mën a am njeexitalu pal ci la muy wuti ji mhm. loolu nag danga nga ko koy nangul parce que njiitu réew euh, au-delà de responsabilité yi nga xamante ni si maanaam gàcc nañ ko ko ci loosam dañu koo jox may goo dañ koo jox loo xam ni mën naa tànn tabb ku ko neex mën na tabb abdulaay bow comme mën na tabb faatu abdu njaay ci liggéey bi nga xamante ni si moom la soxla ndaxam mën na ko nag loolu moom euh, saytu bu jiitu woon la moom li ñu daan wax enquête de moralité xool ndax nit ki euh, jaar-jaaram may na ko ci doxalin boobu waaye lu ñu mën a jàpp rek ci dellu si Mamour Diallo mooy euh, njëlbeenu wax ji nga xam ne Abdoulaye indi na ko mhm. nit ko am njàng la koo xamante ni si la euh, c'est un cadre hiérarchie a bokk ci euh, niveau bu bu bu kawee fii nga xamante ni mooy fi Ousmane Sonko doon bokk ci wàllum euh, jàng ci wàllum liggéey mu doxal ko tey jii it ñu delloosiwaat ko ndax am nag ñin ñi nga xam ne dañ leen a gàcc ay tuuma sax yoon teg leen ay daan. ba ñu tëj leen ba génne leen mhm. dañuy teg tey lii nga xam ni mooy politique de réinsertion pour ñu mën leen a delloo si waat comme nag dañu koo gàcc moom ay tuuma te yeggagun sax ci atte ko layoo amagu ca ba ñu naan fii la mujj ak lépp te bu amee xam-xam ak njariñ mën a liggéey nañu ko delloo si waat jox ko ay ndomba tànk yoo xamante ni si dana mën a liggéeyal réew mi rawatina ka mu àndal wóolu na ko ci loolu mhm. askanu Sénégal nag ñoom ñooy décider ëllëg si biir ban doxalin la ñuy jël ak képp koo xamante ni si laale woon nga ci li nga xam ne mhm. moom mooy doxalinu alalu réew mi mhm. te ñu tudd la ci ni ak luubal daa am ca fa nga nekkoon foofa Sénégal ñoo ci décidé ca njiitu réew may ñëw ëllëg naka la koy naka la war a doxalee ci loolu alors Abdoulaye En fait, euh, en fait euh, on, on, espère qu'il ne va pas se bloquer dans les tuyaux <laughs> véritablement de, de l'ONAS. Et par rapport à la nomination, bien, moi, moi, moi, yes, en tant que directeur général, maintenant, yaa ngi wax renforcement politique je rappelle d'emblée que lors des élections locales Mamour Diallo dafa ànd ak Aminata Mbengue Ndiaye jàkkaarloo ak ki nga xam ne moo di Moustapha Diop Moustapha Diop daal di leen daan fii nga xam ne moo di Louga quand on sur le plan politique euh, l'électorat bi nga xam ne Mamour Diallo xawoon na ko am c'est un électorat qui s'est effrité qui s'est totalement émietté boo xoolee électorat wu Aminata Mbengue Ndiaye au nez de Louga euh, bu effrité wu sur le plan politique et sur le a renforcement politique. voilà voilà parce que parce que peut-être qu'il a il y a certains de ces affidés qui ruaient dans les brancards qui voilà ak yu demee noonu mais dans tous les cas euh, je pense que aujourd'hui un Abdoulaye Diouf Sarr taxaw dóor sur la table moo ëpp représentativité et puis moo ëpp itam. li nga xam moo di qualité en en tout cas euh, morale sur le plan politique du ma ne kay amu ko waaye am na lu ñu ko jiiñ te kay jiiñuñu ko ko euh, booy xool un peu euh, ñaari personnalité wala yeneen personnalité di nga gis ni effectivement y a une grande différence par rapport au profil yoo xam ne dañ leen di andiwaat ak profil yi nga xam ne dem nañu lu bari soppeeku na parce que dafay mel nii rek nga ne jigéenu APR amul jigéen yoo xam ne depuis dix ans ñu ngi fii te mosuñu am dara mosuñu leen tabb si dara mosu leen cité si dara en lieu et place d'une Kouramaki boo xam ne barki démb la ñëw xammee nañ ko mu nekk saaga kat mais Kouramaki bi tam en fait je parle de Kouramaki autant je parle de Diouf de Assane de l'ensemble de téléphone et de l'ensemble de ces écoles mais Fatou Abdou il faut ñu koy mm-hmm. Euh, il faut ñuy fàttali lool c'est important bien sûr. je crois bien que tey jii nii yow ak man ak keneen mhm. ñuy insister sur les valeurs bien sûr voilà sur sur l'identité culturelle du Sénégal sur yeneen yi ngay jàpp ni da nga am koo xam ne en réalité day taxaw naan pichum peew pichum peew euh, au niveau des couloirs de l'Assemblée nationale ce n'est pas du tout normal et véritablement il faut quand même yooyu ñu koy ñu siy pointé xam xam nga loolu aussi c'est c'est au politique ñoom ñooy choisir xeexkat yi xulookat yi yi jiital leen euh, ci li nga xam ne moom mooy méritocratie ak ñi nga xam ne dañu yàgg ci parti et coalition là également oui dama une fois je le dis et je le répète et j'ai l'habitude de le dire autant dans le pouvoir comme dans l'opposition képp koo xam ne am na saagakat gu ñu ràññee saagakat googu na ko Sénégal yëpp duut baaraam na ko Sénégal yëpp xàmmee na ko Sénégal yëpp ràññee wane ko kii nii anti modèle la je pense que loolu il faudrait quand même que ñu ci mën di insister fois dinaan non nous étions un pays de valeur euh, euh, lu tax anti valeur c'est parce que les valeurs étaient là les valeurs sont là les valeurs sont présentes mais on a choisi de miser sur véritablement li nga xam moo di ay anti valeur ay anti modèle def seen promotion je pense que euh, du question nit ki waaye tamit dafa am loo xam ne yaa ko wax mérite la itam am na ay jigéen yoo xam ne depuis 2008 elles sont dans la paire elles sont arrivées au pouvoir avec président Macky Sall elles sont elles continuent d'être des amazones au niveau de ce parti là te mosuñu leen tabb sax comme suppléante sur une en perspective d'élection locale en perspective d'élection législative mais à quelle fin ngay xëcc ñenn au niveau du parti démocratique sénégalais tabb nañ fii euh, sous la sous la sous la onzième ou la douzième législature ab jigéen joo xam ne xam nañu ni ña fa nekkoon coordonnateur ak responsable ñoom Oumar Sarr dañ ko fa yóbbu parce que jigéen jooju xamoon nañu ni xulookat la xastekat la rajogu kat la au détriment de jeunes femmes yu nekkoon biir parti démocratique sénégalais euh, sénégalais amoon amoon mhm. taxawaay bu wóor amoon jaara am am dundin gi am léppam mhm. mais kooku mu elle a été la première à se retourner contre eux pour les poignarder mhm. donc dama dans le pouvoir autant dans l'opposition bien sûr dañuy wane war a wane toujours euh, lii nga xam ne moo di profil yi yi mm-hmm. gën a ràññeeku profil yu gën a baax ñi nga xam ne ils savent tenir le discours ñi nga xam ne ils ont le sens élevé de la responsabilité ñi nga xam ne Sénégal moo leen ñor ñi nga xam ne liggéeyal Sénégal moo leen ñor mais on ne peut pas miser et continuer de miser sur véritablement des carnivores des drogués d'argent yoo xam ne lu leen intéressé c'est des intérêts strictement personnels et ça c'est un cri de cœur du Sénégalais c'est eh, bien entendu te loolu war nañ si mën a. Eh, eh, c'est bien entendu on passe muy très rapide li mu wax nii dafa am solo mooy c'est vrai la politique c'est bien politique aussi c'est bien parce que ku nekk dafa def politique mais aussi la politique am des valeurs parce que aussi nit dafay daf boo bëggee nekk si am njiit da ngay a ànd ay valeur mais j'ai constaté que comme ni nga ko waxee sànq anti modèle yëpp sont arrivés à leur fin parce que soo xoolee tey ki nga xamante mooy Souleymane Jules Diop moo njëkk a saaga mm-hmm. te tey agsi na fa mu mujjee mooy mu ngi nii tey mu ubbi yoonu saaga bi xam ñi saaga moo leen inspiré moom muy Souleymane gis nga ko bi ñuy wax tey gis nañ fii ay audio yu yoo xamante ne boo ko déglu sax du du jekk sax si ab kilifa di waxee noonu tey mi ngi na ki commencé am ay occupation c'est-à-dire léegi Sénégal da nga demande sax ñan ñooy politique parce que ku fa gën a saaga ku fi gën a am euh, euh, li nga xamante ne mooy ñàkk yar wala ngay andi ay anti valeur souvent da nga arrivé à tes fins damay demande wu nag ba xam léegi politique coolement doo dem fenn mais politique boo xamante ne dafa am reewande ak saaga dinga nga àgg fa nga jëm xam nga li ci am réew mooy bu demee ba ñaawteef di jël kaw baax di dellu suuf jaaxle dafay am tey jii ñi nga xamante ni si ñoom la ñu jël fësal leen euh, ñu ngi mel ni ni ñu ko waxee Souleymane Jules Diop mm. bi muy dellu si senegal ñu koy teeru teeru yu rëy yoo xamante ni si ay directam la laan def di saaga bay saaga kilifa diine yi di leen xas ñu dalal ko tabb ko ci nguur googu waxuñu ca dara ñu wéyale ci jotaay yi gën di dem président Moustapha Niass à problème mu am mu taxaw wax ba wax kàddu yoo xamante ni si yu doy waar la tey jii ñu jëloon ko jox ko ay institution yu toll ni assemblée nationale ñu demati ba ca biir ñu jël euh, président de la république nit koo xamante ni si donte sax moom saagaam président la doon saaga man saagam euh, muy Californie mii nga xamante ni gis nañ ko mu wax lu ne président de la république wax lu ne première dame euh, tey jii bi président de demee bitim réew recevoir ko dalal ko pare ànd ak moom ñëw ba mu ñëw ci réew mi ndogal lii dal ko fi <laughs> ñu dem ci nga gis ni Coura Macky bii ñuy wax doon na koo xam ne li ñu ko ràññeet li lépp lépp lépp mooy wax ñaawteef ak di ko wax doomu aadama tey jii mu ñëw dugg assemblée nationale ñu bari di tàccu am na ñoo xamante ni si seen àddina yépp ñu baree bari seen àddina yépp dañu ko jël wéer seen làmmiñ ci ñaawteef ci deru gor ñi wéer seen ñaaw seen làmmiñ ci di tudd euh, ayibi doomi aadama wala di ko ko wëral bu ñu demee sax ba amuñu ko daal la koy waxal te ñi nga xamante ni si ñoo war a dakkal loolu ñi nga xamante ni ñoo war a bannir loolu tey jii ni ñoom ñooy jël ñooñu di leen fal président Youssou Ndour gis naa ko mu woy jëme ko ci réseau sociaux yi daal di ciy wax ñin ñi ne ci ginnaaw clavier yi président Macky Sall wax dogal jël ci ñi nga xam ni ñoo nekk ci ginnaaw clavier yi tey jii mu jël nit ñoo xamante ni si de face la ñuy taxaw tée deru gor di ko wax wax ju ñaaw di leen jox ay privilèges yoo xamante ni si ils seront carapacés de leur immunité parlementaire jox leen ay moyens jox leen ay jumtukaay pour lan assemblée nationale bërëbu layoo la dañu fa war a yóbbu koo xamante ni xam-xamam màcc na ci yittey doomi aadama yi xam-xamam màcc na ci yittey sénégale yi xam-xamam màcc na ci euh, doxalinu politique bi nga xamante ni moom lañ waaye war ci doon nit <laughs> koo xam ni saa bu ñaawteef amee moom la ñu ciy xalaat saa boo diggee wax ju ñaaw lan ñam nga ciy xalaat mhm. <laughs> encore une fois nañuy wone lu baax réew mi dem na ba tey jii nii da ngay gis ci internet bi nit taxaw nii maa ànd ak diw maa jaxasoog diw wane vidéo yoo xamante ni si nit ki ma nga nekk ci biir suturaam ñu koy xaawi di ko teg te képp koo xamante ni si yaa ngi koy tàcc wala yaa ngi dox ci loolu xoolal bisam dana ñëw te itam mu jëm fan lay nekk. Mhm. Mm-hmm. alors ci ci loolu la ñuy demee ci le deuxième point muy appel euh, téléphonique entretien téléphonique entre euh, téléphonique nag warul sax nekk loo xamante ne dañu ko parce que c'est tout à fait naturel cher Omar mais un entretien téléphonique entre deux chefs d'État yoo xam ne euh, bëri wuñu luñ koy wax bariwuñu lu luñ koy def et d'ailleurs li nga xam ne moom moo tukkee ci euh, PDS rawatina ki nga xam ne moom moo jegee Abdoulaye Wade mooy wane ne tàmmuñu ñoom ñaar di wax téléphone et cette fois ci def nañu ko ils se promettent également wax yu bari euh, lan la mën a xalaat ne ñoom la ñuy moom la ñuy mijoter les deux présidents de la République. souvent ñi nga xam sax ñoo gën a nekk sa adversaire ñooy gën a nekk bu mm. fekkee je donne juste un exemple par exemple y a deux lutteurs qui se sont cognés tellement Gris Bordeaux ak euh, Balla Gaye ak euh, Eumeu Sène ils sont devenus les meilleurs amis seen famille ñooy ki amee jafe-jafe kii mooy ñëw mais day fekk euh, nawlante am si adversité boobu te sooy xool parcours Abdoulaye Wade il a été un vrai combattant commencé opposé wu ak Senghor mais Abdou Diouf bi muy ñëwee Euh, son plus grand opposant son plus farouche opposant il s'appelait Ablaye Wade on n'a jamais entendu Ablaye Wade ci yenn termes yi wala ci yenn comportement yi seen adversité métti woon trop seen adversité métti woon na trop sooy seet euh, leçon de démocratie bi ñu jàngal àndona ñoom ñaar il faudra aussi accepter que Abla Abdou Diouf a créé les conditions mm. pour avoir une élection démocratique mm. il avait pris laay suma juumul général Niang je crois. mu nekk ministre de l' intérieur boo xam ni nekkul ci benn chapelle politique. général Cissé d'abord général Cissé oui. général Cissé oui oui qui a été véritablement le juge du euh, perfil euh. am na benn livre de la démocratie. Euh, nga gis grandeur boobu ñu amoon ñoom. baltaakul sagar xeeñ. te ci jamono boo xamante ni ñu ngi quitté les années quatre vingt dix di dugg deux ou dans toute la sous-région et partout en Afrique on a eu des alternances yoo xam ni deret moo ciy tuuru hmm. bakkan moo ci loru et image bi ñuy garder mooy Abdou Diouf Abdoulaye Wade gagné na ko ñu am benn sommet boo xamante ni sommet au niveau international Abdoulaye Wade moom du dem day yebal le président sortant pour mu dem tàgguwaale ses pères qui sont des chefs d'État je crois que élégance mënul mënul mënul mënul weesu loolu ñoom ñaar aussi ku si nekk am na fi rôle ak responsabilité ci réew mi parce que tey euh, munoo wax politique sénégalaise te waxuloo juuf Diouf nekkoon à la tête d'un des plus grands partis Abdoulaye Wade aussi mënoo wax politique moo tax man parfois dama naan sax euh, muy Abdoulaye Wade muy Abdou Diouf il faut que ñoom ñu nekkoon au-dessus de la mm. ñu détaché wu de tout ce partisan. comme tey yàlla cëral na leen joxoon na leen cër te képp ku ñu mën a toog mën nañ wax ak ñoom je crois que waroon nañ mën a utiliser euh, seen diggante boobu pour conserver même le tissu social je crois que euh, ça ne doit pas poser problème aux États-Unis tu vas euh, trois générations de présidents qui se retrouvent nga dem euh, au Ghana ici en Afrique euh, président yi nga xam ne ki toppoon ci moom mu ngi dem donc ils ont donné une benn leçon de de démocratie ils ont donné une leçon de tolérance démocratique malgré tout ce qui s'est passé euh, ñoom lañ doon toll diggante boo xam Ablaye lañ koy tëj ci kese bi mais terewul bu toog waxtaan pour l'intérêt national diisoo trouver consensus il parvenait à se retrouver vous savez am na lu ñuy wax entreprise Ablaye Wade Euh, dugg si gouvernement bu élection di waaj a dem mu doon euh, mu tàpp ab Abdou Diouf na ko saa man kat maa ngi hmm. kii jaar na la kii jaar na la bu ñu paree ñu ñu gisee je crois que tey loolu la ñu war a jàngal leçon bi ñu ci war a tirer mooy cette nouvelle génération d'hommes politiques euh, ñu xam ni que am na fu ñuy toll war nañu mun a garder benn tolérance. te leçon la pour sénégalais que nit ñi mun nañu am différence dans l'approche mën nañu bañ a bokk gis-gis mais loolu nag élégance la. moo tax may wax tout le mm. temps. Mm. la démocratie affaire de. gentleman parce que tey Abdoulaye Wade ki mu waroon gën a gisanteel ça devrait être mais pour ñu gisee sax il faut ñu dajale leen Masaalikul Jinaan sëñ bi ñaan pour ñu jubóole leen parce que entre temps y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'adversité je crois que lii leçon la ñoom ñaar ñëpp ay anciens chefs d'État lañ tey nekkatuñu yore cër boobu. kon cër bi ñu am ci ñoom mooy ñu nekk ay CDS maintenant ñoom ñaar suñu waxtaanee xam nga nag ñaar ñu waxante téléphone fekkee woo. waaw ah. waa PDS li ñu confirmé wala li lay wax rek mooy waxante nañ téléphone mais waxuñu lu continue des conversations mais espérons souhaitons qu'ils parlent pour le Sénégal qu'ils parlent pour la stabilité du Sénégal tey ñoom ñaar war nañu mën a jouer rôle nekk magum puso pour ñaw diggante yi pour que ñu gën a sàmm démocratie ñi fi nekk aussi jàng ci ñi leen jiitu ñu dem ba saafonte bu mën a waxtaan ah d' accord euh, sëñ Saliou euh, entretien bi naka nga ko gisee. entretien téléphonique entre deux chefs d' état. lu ñuy rafetlu la. Mhm. lu ñuy rafetlu la parce que image yi nga xamante ni si moom lañ miin euh, ci président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade mooy jamono bi nga xamante ni si ñuy def passation de service. Mhm. ak beneen bi nga xamante ni si mooy bi ñuy décorer président Abdoulaye Wade. Mhm. Abdou Diouf yëkkati doom ci loo xamante ni si boo koy déglu ba ci yàgg ci wàllu politique da nga naan man sax dama jaaxle ndax euh, ci jamono boobu sur le plan euh, sur le plan politique euh, da nga daan dégg ñuy wax Abdoulaye Wade nitu fitna la Abdoulaye Wade nangam Abdoulaye Wade nangam Abdoulaye Wade nangam jamono dem ba président Wade ñu koy décorer. Abdou Diouf moom lui-même président euh, ex-président du ancien président du Sénégal mhm. taxaw ni Abdoulaye Wade fépp foo xamante ni si jafe-jafe mës na fa am il a pris son de pèlerin dem pour régler ji loolu noonu mhm. euh, ñu indi fii exemple Madagascar bi ak yooyu yëpp mu wan la ni politique dafa am loo xamante ni c'est des stratégies waaye njeexital gi dëggantaan mooy la réalité moom mooy mujj saa su nekk euh, bi mu defee loolu nag yàggul dara nga déggaat ni président Abdoulaye Wade tey jii kii nga xamante ni si mooy président Abdou Diouf euh, yëkkati na téléphone am daal di koy woo di waxtaan ak moom ci lu ci ci mbirum kóllëre ak seenu démb mais président Abdoulaye Wade est un boo xamante ni si aussi il a été élégant ci jamono bi nga xamante ni si wuutu na Abdou Diouf euh, comme ni ko Cheikh Oumar Tall waxee bàyyil ko ay bunt yu baree baree bari euh, tey itam accompagner ko ba mu jiitee fii nga xamante ni si mooy francophonie mhm. euh, don le secretaire général euh, tey jii bu ñu dellu si waatee ci li nga xamante ni si mooy seen appel téléphonique damay jàpp ni lu rafet la loo xamante ni royukaay la tey it ñi politique tey war nañ ci jàng ni ëllëg njeexital googu la ñuy xaar ci ñoom mhm. te ñoom fi ñu jiitee réew mi ils sont de ils sont plus jeunes ci bi ñuy jiite réew mi ak ñi nga xamante ni si ñoom la ñuy jàkkaarloo ndax président Abdou Diouf mine de rien dañ def na vingt ans. Mhm. donc ci léegi vingt ans de magistère moom xajatul fii ci bopp réewum Sénégal kenn xalaatatu ko fee def. te kon dix ans lu ñu bari bari bari ki wuutu moom itam bu defee vingt ans dañuy ñaan yàlla ngeen wàcc ak seen expérience nekk ci biir réew mi doon ay xeltukat ñoo xamante ni ngir ëllëgu Sénégal la ñuy xaar ci ñoom. Mhm. donc président Abdoulaye Wade a été très élégant et le président Abdou a été plus courtois. de d'appeler son grand frère waxtaan ak moom loolu moo tax Abdoulaye Wade bi muy wax mu ni en 2007 Diouf a voté pour moi mu jaaxal ñu bari ci bi ko Ahmed Aïdara di interroger laaj ko ko mu ni ko yéen journalistes yi du ngeen wax mukk euh, fu ngeen jëlee seen xibaar di ngeen protéger nag seen source loolu moom moo tax it du leen wax fu ma ko jëlee waaye gëstu leen nga xam ni ginnaaw fonction président yi Abdou Diouf amoon am na beneen ak mbokk akuk booloo akuk xaritoo goo xamante ni judd na ci seen diggante donte gise bi bariwul waaye saa yu ñu déggantee rek mm-hmm. Mm-hmm. mel ni tey la ñu nekkoon mm-hmm. donc loolu la ñu doon xaar eh, eh, eh, et hyper grand maître Abdoulaye Wade sur sur ce plan alors est-ce que entretien téléphonique bi euh, mën nañu ko teg ci parce que dañu xaritoo parce que dañu juboo mais am lu leen obligé ba tax ñu wax nous sommes dans un contexte boo xam ne un peu particulier un climat boo xam ne tendu entre les politiques pouvoir comme opposition loolu mënul nekk peut-être la raison waaw mën na nekk mais je crois bien que euh, d'emblée il faut dire quoi de plus normal que deux personnes puissent s'appeler au téléphone. c'est la question que je me pose. Mm. Euh, il est tout à fait normal que ñu toog dire moo tax ma ne la est-ce que du contexte. xaar ma ñëw. il que ñu toog ba dire. Euh, ko man ma woo Evelyne Mandiou Ba nemmeeku on s'attarde sur le coup de téléphone parce qu'il s'agit des deux prédécesseurs du président Macky il est vrai également qu'à moment donné. Abdou Diouf bu woowoon Abdoulaye Wade il serait sur sa boîte vocale quand même il faut quand même avoir l'honnêteté de le dire mhm. mais la question que je me pose il est vrai que jamono yi soxla nañu euh, ay ay ay sages yoo xam ne ni effectivement dañu waxal wax wax au nom du Sénégal par rapport à un apaisement du climat politique et social pour éviter de sombrer si li nga xam ne moo dal yenn dëkk yi nga xam ne ñoo ñu wër aujourd'hui au Tchad il des manifestations mm. il plus d'une une trentaine de personnes sauvagement assassinées ouais. euh, euh, en Guinée il y a des manifestations également donc ñun naka la ñuy mën a fexee ba rëcc si lool Abdou Diouf euh, Fat Abdou il n'a jamais posé un acte de démission du Parti socialiste mm. lorsqu'il quittait le pouvoir en 2000 Abdou Diouf tabb nañ ko secrétaire général euh, de l'organisation de la francophonie mais boobu ba léegi quel est l'acte qu'il a posé par rapport ak li nga xam moo di Sénégal par rapport ak li xam moo di jàmmu Sénégal loo xam ne da koy wax ñu dégg ko Sénégalais yi di namm baatam parce qu'il a été leur président pendant vingt longues année encore une fois donc je pense que Abdoulaye Wade boo xoolee posture mu perte pouvoir bi en 2012 il est revenu deux ans après il reste présent dans le landerneau politique hmm. des positions moo xam nga ànd si nga bañ see ànd il des avis moo xam nga ànd si nga bañ see ànd depuis 1974 il reste et demeure le secrétaire général national du parti démocratique sénégalais hmm. donc ki nga xam ne gën yàgg si langue politique Sénégal présentement euh, wàllu bokk sax de tout temps il s'appelle justement Abdoulaye Wade mais il a montré véritablement son affection pour le Sénégal. Mhm. wane li nga xam ne moo di bëgg gi mu bëgg Sénégal cofeel gi mu am si Sénégal donte la ay nit dañuy tàmbali naan doomam de bu li ko dallu woon xëy na moom ma nga dem toogi Versailles peu importe mais on juge par rapport li nga xam moo di les actes. Abdou Senghor quand il a quitté le pouvoir suite à sa démission au soir du 31 décembre mais pendant jusqu'au jusqu'à son décès mais il ne s'est évertué qu'à véritablement pratiquer la langue française liggéey France waxul musul wax lu xew Sénégal musul li nga xam ne dugg euh, na Sénégal et le Sénégal pourtant a traversé ay moments politiques yoo xam ne moments politiques yu doy waar la il y a eu des événements de mars 2021 il y a eu des événements qui ont précédé ceux de mars de mars 2021 Il y a eu une vague d'arrestations depuis 2012 mais nous n'avons jamais entendu Abdoulaye maintenant euh, Abdou Diouf autant pour moi maintenant nag bu ñëwee pour wax dëgg-dëgg si li nga xam ne moo di jàmmu Sénégal suñu si waxtaanee xool itam lan la ñu mën a dee kii nga xam ne moo di président Macky Sall ngir mu wéyal Sénégalu jàmm Sénégalu déggoo Sénégalu responsabilité Sénégalu adversité politique boo xam ne dañ ko teg si li nga xam ne moo di raay bañ a euh, mu nekk locomotive boo xam ne mooy tirer la démocratie sénégalaise la démocratie sénégalaise vers le haut du sommet defe naa ne loolu ñuy xaar. Mhm. mais je pense que euh, euh, quoi qu'on puisse dire je reviens à ce que j'ai dit d'entrée mooy que ni il n'y a rien d'anormal à ce à ce que deux personnes puissent s'appeler au téléphone parce qu'il s'agit de de prédécesseurs du président Macky Sall. bien sûr oui. c'est euh, a rien d'anormal mais peut-être euh, que ça fasse l'actualité ou que ça soit inédit. Mhm. pas parce que tey gis nañu deux quotidiens ah la tribune oui ñu ko def à la une. il vit en France à je sais pas moi à Paris ou en tout cas quelque part en France. Mhm. Abdoulaye à Versailles. Versailles ça se trouve ou en France ou principalement à Paris. Mhm. ñoom ñaar ñu bokk ville. autant d'années doxantew seetantewuñu. kenn seetu naan demuñu naani café kii xoolul kii kii newul. <laughs> sama rakk la kii newul sama mag la xaar ma seeti ko nekkoon naa njiiti réew kii nekkoon na njiiti réew. Mhm. cee nañ ko xoolal nu mu koy seetee. je crois bien il faut quand même que l'on puisse euh, euh, euh, nu ñu ko waxatee teer véritablement lép li nga xam moo di approche émotionnelle la def un pas de recul analyser avec froideur les faits ça, pour dire oui, qu'en réalité ah, en réalité que ni écoute bu ñu doon waxtaan doon gisee xëy na ñu ngi doon déggante loo xam ne yëguñu ko yëgoo ko yëguñu ko mais quoi qu'il en soit fait yi pour le moment li mu wane rek moo di man je conçois que c'est deux Sénégalais deux anciens présidents qui se sont appelés et peut naa la gis naka mm. njaboot gi et puis voilà. et, et si c'était naturel peut-être est-ce que oui. c'est que vous avez dit. Euh, normalement ça ne doit pas poser un débat euh, de presse yoo xamante ni day gëj mais lu tax xaw a nekk diine ji parce que mosuñu dégg ni ñoom ñaar am nañ rapport boobu wala relation mm-hmm. boobu euh, beneen bi aussi si contexte yi ñu nekk c'est une bonne leçon que bu ñuy jox ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ensuite Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf bokkuñu sax ay profil xam nga kële c'est un passionné de la de la politique ni mu formé woo nekk avocat nekk ci ay cause nekk ci ay combat euh, commencé ci politique waa datu bi demande da nga war a bàyyi politique mu ne tant que jéem a donnera souffle de vie damay damay damay politique euh, koo xam ne ba tey il continue à montrer soo amour il continue à parler sur les questions wute ak Abdou Diouf bi nga xam ni euh, c'est un administrateur civil son parcours très Euh, policier très nga xam ne dugg na sax par la là la l'attendait pas après euh, il se retire un peu pour ne pas peut-être gêner ki nga xam ni mooy son adversaire rek mais ensuite il voulait pas faire de aussi à Ousmane Tanor Dieng et ensuite Abdou a décidé de s'effacer comme Senghor a décidé de s'effacer et lenn rek moom ci xaw a metti pour man j'aurais aimé aujourd'hui voir Abdou Diouf mu dem ca Louga googee tabax fa kër toog Louga près des siens peut-être ab Ablaye Wade di ñëwee am attachement am toogaat biir Sénégal ñu koy gis au moins ñu mën a xam ni que euh, ñii nii kat jox nañ une belle leçon beneen bi il faut pas que ñu na bante Macky Sall Abdou Diouf à un moment donné bi Macky di jël di tuddee centre Abdou Diouf di tuddee ab Diouf fële ca conférence jamono boobu moo ko Ablaye Wade neexoo wuñu Ablaye Wade jiinul Abdou Diouf sàcc moo kenn jiinu ko wax bu ñaaw topp ko toppul njabootam pourtant Macky Sall defut loolu au même moment bi ngay gis ni beneen kujje gi nga xam ni moom moo taxaw tey mën nañu wax ne à un moment donné Abdoulaye Wade toute l' opposition se réunissait autour de lui donc si on se retrouve avec ces deux anciens mm. présidents mm. ku si nekk muy kujje gi jox nañ cër Abdoulaye Wade ku dul ku gi jox nga cër Abdoulaye Wade ñi nekk ci nguur gi aussi tey jox nañ cër Abdou Diouf kon ñoom ñaar bu ñu toogee war nañu mën a utiliser li nga xam ne mooy seen kilifteef pour que la bal bi ak tension bi. ñu mun ko wàccee ba mun ba mun ko régler. et lii leçon bu ñu war a jox Macky Sall aussi il y a après la présidence. forme bi d'abord parce que ñu ñu ngi koy wax xamuñu lan la ñuy wax ci seen biir mais ça mm-hmm. suscité quand même mm-hmm. euh, suscité plutôt li nga xamante ne moom mooy réaction ñenn ñi euh, quotidien yi am ñu ko xam ne def nañu ko euh, titre à la une comme la tribune forme bi mm-hmm. c'est le secrétaire privé du président de la république moom moo sax joxe information pour wax ne les deux hommes se sont entretenus mm. est-ce que loolu bu fekkee ne de manière très naturelle entre deux personnes yu wax téléphone jaroon na sax nit ñi di di ko xam waxuma la xam bi mais mu am loo xamante ne mën na lalu ci suuf. waaw mais waaw mais euh, man je dirais <laughs> enfin ils se sont parlé parce que même bu fekkee ne gars yi dañuy wax ne c'est normal que ñoom ñaar ñu wax mais aussi ñu ngi waxtaanee si ay hommes politiques ah waxtaanee wu ñu diggante Abdoulaye Mbow ak euh, Bamba. wala wax ñu diggante Bamba ak Cheikh Omar on parle des hommes politiques et Fatou euh, ça fait combien de temps que ñu ñaar waxuñu boo gisee la presse mu relayé ko combien de temps Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf tooguñu waxtaan kon mën naa wax ne sax ginnaaw ay mën nañu wax jàmm parce que nag quoi que l'on puisse boo gisee ñu wax ko ci presse bi parce que ay amoon na fi ci ñaar nit ñi parce que comme ni ko Cheikh Omar waxee. peut e-, ko wax pour peut-être. nit ñi xalaat ne mais xam nga. ñaari kilifa yi am na lu ñuy wax comme li. mën na nekk waaw loolu xam deux sages qui parlent. mais xam xam nga xam nga moo tax ma parce que nous sommes dans un contexte particulier. moo tax Fatou ma ne deux volets dafa am perspective loolu perspective bu la waaye dafa am lu fi xewoon moom la Cheikh Omar di wax nii itam man loolu laa bëggoon a développer mooy. Hmm. parce que les deux hommes dafa toog lu yàgg am histoire bu fi jàlloon bu ñu fàttali ko bu baax tuuti rek. Macky Sall mii ba mu jëlee li nga xamante ne mooy salle de conférence jam ñaar tuddee ko Abdou Diouf réaction Abdoulaye Wade ñëpp dégg yëg nañ ko mooy de moom moo nekkoon invité d'honneur moom Abdoulaye Wade mu bañoon ko refusé woon ko ñëwul li tax ñëwul presse bi ñëpp wax nañ si parce que amoon na lu ko metti peut-être parce que jàppoon na ne moom la ñu woon teg foofu peut-être jàpp na ne aussi Macky Sall dafa xaw a gën a nekk si côté Abdou Diouf bi bi mu jàllee gis nga ni ko presse bi ëllëgee. contexte boobu tension doomam mu ngi ci kaso. justement justement montre ko ça ça ça montre que y avait. loolu amul problème digganteem ak ab boobu digganteem ak Macky Sall je veux dire que mën xam nga yow loolu nga jàpp mën na am aussi que lool aussi gën naa xajamal kàtt gi mën na am aussi am na yeneen yu fa xaw parce que ce sont des hommes politiques comme ni nga koy waxee la ñuy ngun-nguni si suuf yow mënoo ko xam yow si kaw nga mën a xam bañ fi jógee bu fekkoon ñoom ñoo amuñu problème. Omar kon ñoom ñaar dañuy waxtaan dañuy gisante parce que rien n'empêche de se voir. Abdoulaye Mbow hmm. euh, pour être candidat à l'OIF Abdoulaye Wade est président du Sénégal c'est Abdoulaye Wade qui a porté et soutenu sa candidature pour que moom mu nekk à la tête de l'OIF loolu par exemple c'est une preuve de d'élégance et de générosité hmm. c'est-à-dire euh, parfois dama lay dégg ngay wax mais il faut comprendre que en termes de générosité même tolérance. tu hmm. sais Abdou Abdoulaye Wade par exemple. Hmm. ñaata yoon lañ ko tëj ci kaso bi. ki doon orchestre ñu koy tëj Djiboka terewul Abdoulaye daa ñëw def Djiboka def ko ministre jël ko taf ko ci wetam c'est-à-dire Abdoulaye mooy koo xamante ni xol bi dara newu si ko ñu ko mosoon a def musiba ak tëj ak yooyu moom newul ci loolu. Mm-hmm. newul ci lool c'est-à-dire dama la bëgg wax grandeur boobu yàlla mayu ko ñëpp yàlla mayul ñoo xam ne di dinañ toll foo xam ne dañuy surpassé wu ku nekk fàtte sa morom la mu la dencal ngeen mën a gisante am na dëkk yi regarde Nelson Mandela bi ñu ko bàyyee ki mu gën a def xarit mooy ki ko téewoon ci kaso di ko di ko surveiller kooku dem na bay saw ci diggu boppam pourtant ils sont devenus les meilleurs amis c'est-à-dire seen leçon de vie bu ñu jox ñëpp maanaam malgré parfois jafe-jafe wala diggante bu xajam am na loo xam ne mun nañ koo sàmm teg je parle je parle d'un contexte précis waaw d'accord d'accord ça on le sait ça on le sait il est très généreux c'est un c'est même un mythe au Sénégal mais wax fi ñu waxee man je parle d'un contexte précis mooy je parle de Abdoulaye Wade bu ñàkk pouvoir waxuma Abdoulaye Wade bi nga xamante ne ba mu faloo la mu defa ak Abdou Diouf yooyu waxuma loolu je parle d'un contexte précis mooy bu ñàkk pouvoir bi mu ñàkkee pouvoir kii nga xamal mooy Macky Sall mu nekk au pouvoir y' a un autre Abdoulaye Wade qu'on a vu. Mm-hmm. mooy Abdoulaye Wade boo xamante dafa am déception Abdoulaye Wade boo xamante wax nga ko sànq say wax dafa am naqar ñu jàpp fi doomam. mu xeex. bien sûr loolu laay wax. bien sûr loolu laay wax ma ne mu ñu jàpp fi doomam ñu gis ñu koy pamte pamtee ki nga xamante mooy Macky Sall jël Abdou Diouf féetu ko si kawam yaa ko wax sànq def ko paree jël kii di Abdoulaye Wade ak teraanga gëm ko defal yëpp sànni ko fële c' est bu ñu ko defal man ma mer bu ñu ko defal keneen mu mer. Abdoulaye Wade quoi qu'on puisse dire ba mu jugee Sénégal dem Paris fa naqar gu métti la fa toogee mere gu métti la mere Macky Sall léegi nag souvent on dit en français l'ami de mon ami est mon ami de mon ami est bu fekkee ne Macky Sall par exemple jël na kii di Abdou Diouf def ko parrain mais c'est un fait c'est un fait qui montre que Abdoulaye Wade mi ngi commencé pour jàpp ne ñii na ma leen la ma leen joxoon comme ni nga ko waxee delluwuñ ma ko te li ma wax un fait patent mooy pourquoi ñoom ñu nekk même ni ko Ablaye Mbow waxee nekk Paris bokk benn dëkk te mosoo leen dégg ñu waxtaan mosoo leen dégg ñu toog gisante Ablaye Wade ñëw na fii ba Sénégal fekk fi Abdou Diouf mu nekk fii gisante wuñu Abdou Diouf jóge ñëw Sénégal fekk fi Ablaye Wade mu fi gisante wuñu kon tey bu ñu gisantee moo tax ma ne la ginnaaw ay jàmm parce que peut-être léegi jàmm jooju mu ngi commencé installé wu ma ñëw si li nga wax je suis d'accord alhamdulilah loolu la ñuy loolu la ñuy ñaan te wóor na ma ne kii di Ablaye Wade def na si esprit ni nga ko waxee Abdou jot damaa jàpp benn wax bu ma sa wax si waxam mu ne celui qui m'a plus fatigué c'est si wàllum opposition si wàllum jaar-jaar waaye nag comme ni wax Abdoulaye moo léegi ce sont des hommes politiques qui paal Cheikh Yérim Seck dafa waxoon benn wax bu ma jàpp ba léegi dafa ne Sénégal bu di jotee ñëppay tëdd mais kenn lu ba fajar ma jàppee ko au sens figuré bi mooy la ñuy waxtaane réew mi yëpp réew mi ñu ngi koy tënk di ko nos di ko nocci si ay néeg si lay entre les quatre coins d'un mur réew mi lañ ko nasee ma ne Abdoulaye Wade wax nga ko sànq il est passionné de la politique te gisuma benn jéego bu Abdoulaye Wade teg boo xam ne se gratuit jàpp naa ne aussi Abdou Diouf nekk na ba léegi pare wu Macky Sall et essayons de faire une léegi déduire. merci bien sûr bien ce que mooy. te déduction bi yëpp. mooy ne Abdoulaye day dil day lii saa toog fi loolu. yaa lépp loolu yëpp yow wax li ngay wax na lay engagé rek man li may wax mu engagé li lay wax na lay engagé rek man na ko li wax na lay engagé rek li may wax mu engagé dama ne. am merci beaucoup dama ne. waaye ma déglu ko mooy. la ma jàpp waxtaan bi mooy. ce sont deux personnes politiques qui parlent te bu fekkee ne am na lu ñu ngungunee Macky Sall loxoom génn si mooy sama wax kon. ça veut dire quoi. cela veut cela veut dire euh, ce que ça veut dire cela mi ngi waxtaan ak Abdou juuf Abdou juuf mi ngi waxtaan ak Macky Sall Abdoulaye Wade am na lu mu bëgg Macky Sall doxal euh, Abdou Diouf doxal ko ko si Macky Sall. ci la lan nga wait and see nañ xool ba si kanam. alors Saliou mën nañ ko jàngatee noonu que ne euh, am na lu ne ci suuf lu ñu muntu muntee mu war a nekk ci ñoom ñaar mais law ba ci ñoom ñett xëy na bu ñu sukkandikoo ci Bamba. Euh, da nga naan kay président Abdoulaye Wade xam nga échange bi bu mu paree waa PDS ñoom ñoo ko publier. Mhm. Euh, à fin. président Abdoulaye Wade ginnaaw bi ko Serigne Mountakha. jubóo secrétaire privé bu Abdoulaye Wade. pas peut-être ça n'engage pas peut-être le PDF. bien sûr euh, ki nga xamante ni si mooy Serigne Mountakha bi ñu ko jubóolee ak Macky Sall président Wade dafa dem seeti ji. Mhm. Macky Sall ni woon dinaa dem seeti ji Abdoulaye Wade. booba ba tey kenn gisul Macky Sall dem seeti ji Abdoulaye Wade. Mhm. waaw président Abdoulaye Wade toog ba jamono déggante ak Abdou Diouf ñu siiwal ko. ndaxam kon munoo jàpp ni. Macky sàll ci boppam. Hmm. la mu waxoon moom moo war a dem jëmmal loolu noonu. Hmm. ci jamono bii. te jamono bii nga xamante ni si ñu bari ñu ngi naan waa PDS ñoo ngi négocier ak makki Sall ñu ngi waa kër Macky Sall ñu ngi négocier ak waa PDS ñu bari di ko wax Aminata Touré daal di génn ngi seen nombre de voix yi lay négocier ak ñoom nangam sangam président Abdoulaye Wade et le PDS ce sont c'est un parti boo xamante ni ils son très endurant mën naa ni moom mooy parti politique bu jaar ci opposition ci at yi mu ci jaar. Mhm. def pouvoir wax nga ko sànq bi mu ñàkkee pouvoir ñu gisaat Abdoulaye Wade li tax loolu jaaxal leen. Mhm. mooy Cheikh Ahmadou Bamba président Abdoulaye Wade bi ngeen bi ko ñu bari di xam ci biir réew mi ñun ñii suñu génération yi mooy doon na président de la République. on l'a pas vu ci jamono bi nga xamante ni la nekkoon au combat bi mu dellu si waatee au combat. Mhm. ni mu mel soppiwuloon te daf bàyyi woon nag ñoo xamante ni si ci ginnaawam mel na ni li mu leen doxloo woon doxuñu ko te danoo mujjee sax dem far ci nguur gi muy ñoom Omar Sarr ñoom maître El Hadj Amadou Sall ak ñeneen moo tax moom bi mu ñëwee jëlal yëf yi boppam ah mel na ni yëf yi soppiku na léegi nag tey jile déggante na ak président Abdou Diouf ñu bari di rumandaat ne Abdoulaye Wade dafay euh, comme ni ko Bamba waxee Abdou Diouf mun na ko woo pour ñu waxtaan que ni Macky Sall lay dilal naa la waxal ñaari baat Macky Sall moo la gën a xam fi Abdoulaye Wade dëkk moo la gën a xam tel numéro de boo soxla woon négocier ji ak ñoom euh, waa PDS ci sàll du yabal Abdou Diouf du yabal ma Samba du yabal ma Demba day demal boppam négocier ji ko Abdoulaye Wade nag yaakaar naa ni ak waa PDS fii ñu toll nii ak woye di dabu leen ba ñu nekk ci li ñuy xeex ba ci waaj a am gain de cause naan dañuy dem di négocier ji nañ jàpp rek ni lu rafet la ci mbokk ak moroomam mu dem a dem ba jamono ndap la nga yëkkati sa kàddu daal di koy woo ndax Abdoulaye Wade nag il a été généreux avec Abdou Diouf sur tous les plans il a été le meilleur il a été plus élégant il a été plus clément moo ko dafa doxal ci digganteem ak Abdou Diouf yërmande dafa doxal ci digganteem ak Abdou Diouf muñ dafa doxal ci digganteem ak Abdou Diouf njëggal dafa doxal ci digganteem ak Abdou Diouf taxawu nit ki tey jii lii président Macky Sall waroon di def ci digganteem ak Abdoulaye Wade noonu la ko Abdou Diouf waree di def ci digganteem ak Abdoulaye dañ naan kay yeex na ko def waaye nan jàpp ni rek. yéex na ko def baax la mu def ko ci contexte bi bu ñu omee loolu mooy indi waxtaan bi yéex na ko def mu def ko ci contexte bi. nañu def ñuy ay ñaari politique également. bien sûr nañ jàpp nag ni ñu doon ñu jiite Afrique te bi ñuy jiite Afrique am ci biir Afrique doole lool te Afrique soowu jant doon foo xamante ni si jamono ji dafa bëri ay yëngu-yëngu bëri ay waax yuy tàkk bëri ay ay musiba yuy bëmm te réew mi daal di daal di doon wërngal goo xamante ni si dañ koo war a aar. ndax Afrique dafa toll ci beneen pàcc boo xam ne. mais mais loolu ngay wax sax mën na mën na nekk ci waxtaan bi. dama ni protéger aujourd'hui le Sénégal. bien sûr faire de que Sénégal du bokk ak yeneen yi nga xamante ne. dégg nañ fa lu nekk la malédiction du pétrole la troisième candidature ay jafe yoo xamante ne loolu moo ko peut-être ah. dafa doon pàcc boo xamante ni si ci xar kanamu àddina bi ginnaaw bi nu moomee sunu bopp ci ñu moomoon ñu yilifoon ni tey jii nii Afrique dafa toll ci beneen yeewu goo xamante ni dafa am beneen pàcc bu muy dugg. ci wàll boobu la toll ci ku xam euh, géopolitique ni muy doxee loolu nag ñoom ñi nga xam ne yàlla suturaal nañu ñu jiite woon réew mi te des fi te amoon xam-xam ci Afrique loolu te doxaloon ko ñuy ñaan sa borom gën leen fee bàyyi bu ñuy jokkoo rek xel mën naa dal nañu rafet njort ci alors ñu rafet njort donc alors rek sa ko lu ko ci nañu rafet njort euh, surtout ci diggante nit ak moroomam mm-hmm. je bu wax la rek toujours élégance Abdoulaye Wade bi Abdou Diouf jógee fii ci réew bi daa dem seeti yaay Abdou amul geste bu gën a rëy loolu mhm. euh, bi nga xam ne Abdou wàcc na daf ko jël na ko yaay représenté Sénégal fee ci Égypte mais tey bu ñuy wax ci politique du point de vue politique Abdoulaye Wade est sur le front il est engagé politiquement mais Abdou Diouf gisoo ko mu benn acte politique. Abdou Diouf na dugg Sénégal ba génn kenn du yëg ni sax Abdou dugg na fi wala génn fi maa lay wax ñoom ñaar bokkuñu sax. c'est son choix aussi. waaw moo tax ma lay wax ñoom ñaar bokkuñu. Mm-hmm. Euh, ay carrière bokkuñu. Euh, seen type d'engagement wala lu ñu bindoo mais c'est tout à fait normal que bu ñu nekkee ci réew ñii ñoo ëpp expérience yoroon nañu réew mi war nañu mën a am. Mm-hmm. cadre yoo xam ni mhm. dinañ ci mën a diisoo pour wut jàmm par contre nag toog fii dëgër fit ak ñàkk a maandu weesuwul yow appel ba kenn associé wu si nga bëgg a toog fii mais dañ koy waxtaane nag man dama koy waxtaane man dama koy wax sama xalaat waaw léegi nag saa toogee rek lu la neex nga jiw bàyyi jàmm politique de politique je crois bien qu'aujourd'hui ñu ngi insister sur moi je demande non oui de politique oui naturellement il a la politique dans le sang bien sûr parce que fi mu tàmbalee ba fa mu jeexalee le disais encore une fois Abdou Diouf il est parti énervé euh, euh, mere waa parti socialiste par rapport à la perte bien je dis il n'a jamais posé un acte de démission du parti socialiste bien sûr euh, bu fekkee ne am na la lettre de démission écrite par Abdou il n'a jamais posé un acte de démission maintenant il n'a parlé que lorsque l'organisation internationale francophonie ah, est devenue pratiquement un appareil quelque part politique boo xam ne France moo moo si nekk utiliser ko combattre il faut ñu wax ni Afrique mi ngi réveillé mais dans quel sens encore une fois la rue a ses limites je dis bien la rue a ses limites on parle de soulèvement un peu partout mais la rue a ses limites il y a eu en le printemps arabe bien sûr aujourd'hui où est, en est la Tunisie avec un président autocrate aujourd'hui mm. qui incarne même en lui-même la constitution la justice le parlement la démocratie et tout mm. où en est aujourd'hui l'Égypte on, on se rappelle du camp récent de, de Morsi. Mm. Où en est les autres pays tels que la Libye, hmm. qui depuis la mort de Kadhafi, après un soulèvement populaire, donc bu fekkee ni tam mbedd bi dina génn am na fu muy baaxee parce que ça montre que ni le peuple comprend les enjeux par rapport ak li nga xam moo di xeex pour bañ nooteel pour am démocratie mais tamit la rue a ses limites et il faut, hmm. aujourd'hui parle ñu ngi wax si lu bari mais à l'échelle internationale un peu partout depuis deux ans je le disais que ni nous sommes dans une période de guerre froide non officielle compte tenu de certains signaux yoo xam ne boo xoolee trente ans ou cinq quarante ans avant avant l'éclatement justement de de l'union de république socialiste soviétique ñu ngi ko doon gis donc ñun naka la ñu mën a fexe les mm-hmm. dirigeants qu'il faut pour mener à bon port véritablement le navire euh, en termes de démocratie en termes de développement xeeb jàmm boobu. waaw li ma si bëgg a euh, bon encore une fois deal pour deal. moi je mhm. suis je dis une chose fa lay jeexale je ne serai convaincu d'un deal que lorsque je me je je m'aurais aperçu qu'effectivement qu'il y a un deal mais pour le moment c'est des waaw waaw man li ma si doon sax du bëri mooy dama bëgg a wax na rek euh, on parle des hommes politiques euh, on ne parle pas de de la personne en tant que telle mu nekk kilifa gi di Abdoulaye Wade mu nekk kilifa gi di Abdou Diouf ay kilifa la yoo xamante ba nekkee tout temps bële dañoo yàgg bàyyee xel si ñoom mais on parle des hommes politiques nga xamante ne dañoo def politique yàgg am ay parti yàgg aussi manœuvre yu bëree bëri te dama jàpp ne si li nga xamante ne moom laa gëm mooy les hommes politiques souvent dañuy nekk ay promis ak ay compromis di waxtaan di teg nga xamante ne mooy ay systèmes yoo xamante dina mën a gën a parti seeni gouvernement wala seeni idéologie mu gën a si si àdduna bi wala bi ma jàpp ne aussi comme li ma wax mooy euh, kii nga xamante ne mooy diggante ab euh, Macky Sall ak ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Wade gis nañ ne musul yomb te bu fekkoon ne tey par exemple Macky Sall mënoon na sol dàllam tey mu yomb lool dem fekki di Abdoulaye Wade encore une fois ma wax ko kon tey ki nga xam mooy kilifa gu mag gi ba nekk Touba seen Muntaxa di ko ñaan yàlla bàyyi ko fi parce que kanam kanam kon tey du ay jéego pour ñu juboowaat parce que ay ati at toog fi ñoom ñaar mosuñoo juboo te pourtant sëñ bi moo fa jaar ba kii di Macky Sall ak Abdoulaye Wade commencé amaat li nga xam mooy ma jàpp ne ne ñëpp xam nañ ne le parrain de Macky Sall c'est Abdou Diouf te jàpp naa ne guddi ñu toll nii kilifa gu mag gu mënti doon loo bëgg si Macky Sall boo jàll si Abdou Diouf mu yombal la. loolu sama wax la man. sa sa xalaat la bien mhm. sûr. dañuy dem ci le troisième point mooy les tournées politiques Cheikh Oumar Talla tournée politique yoo xamante ne tey gis nañu nemmeeku tour gis nañu également tekki jot na gis nañu également PRP dégg it yeneen coalition et parti politique yi nga xam ne ñu ngi koy waaj. dem gisante ak askan yi saafante ak ñoom ndax nekkul une campagne électorale avant l'heure waaw mais euh, gis nga bu fekkee da ngay politique il faut que tu sois présent partout de manière permanente alors tu sors des élections tu vois une cartographie gis nga fan nga am say force gis nga fan nga am say faiblesse da ngay dem nga combler say faiblesse damay d'abord ñaawle li amoon bële passé parfois nguur gi sax ñoom ñoo yor communication Ousmane Sonko wala opposant bu fekkee ni les partisans du régime dañu war a def seen tournée ni nga gis duñu am benn jafe-jafe dañu am kaaraange bu mot sëkk. Mm. dugg fu leen neex. Mm. coow du jib lacrymogène du tax dara du mais bu fekkee waa kujje gi ñoom ñoo jóg pour def seen tournée di nga gis takk der bu jóg gis ab préfet bu jóg dogal ne la doo fi jaar et ce n'est pas la première fois. Euh, Bougane par exemple am na bu ñu wanee mu dem. Euh, kee de pêche Mbour xaw ma Joal ñu ne ko doo fi dugg indi ay takk de ak Sédhiou. Ousmane Sonko keroog ñu def ko fi mais c'est-à-dire la liberté de circulation des personnes et des biens. Mhm. Euh, warul poser problème. libre à Ousmane Sonko dem fu ko neex keroog président Macky Sall mooy président dafa dem doxantu maanaam leen sa bien lay dem doxantu di gis lan moo xew secteur boobu. waroon na yegg lycée Limamou parce que aujourd'hui c'est un tas de ferraille dem ñu defaral ñu foofu mais kon dans une démocratie nit ñi am nañ sañ-sañ dem nemmeeku seeti dox dem gis Macky Sall dafa doon doxantu dugg na si néegu ñax fanaan na si néegu ñax Sénégal gi ruq-ruqaat boo xalaat biir Sénégal Macky Sall def na moom daa doxantu woon daa waroon dëkk bi yëpp waroon na du point de vue politique am na benn vidéo bu ñu wane sax. mu naan kenn mënu ko tere muy dem fen liñ la démocratie lii la yëfu gentleman la. c'est une affaire de gentleman et aujourd'hui l'administration territoriale doit se limiter à faire son travail je rappelle que le principe même de l'administration c'est c'est la neutralité et l'impartialité donc plus ñoom ñu koy def plus ñuy dooleel li nga xam ne mooy kujj gi parce que tey bu fekkoon amuloon ay interdiction wala dóor ñu fi lacrymogène du def effet bi nga xamante ni moom la wone donc Euh, dañuy dem élection présidentielle fii ñu toog nii ba 2024 ñi nga xamante ni am nañ candidature yu sérieuse ils vont aller rencontrer les sénégalais waxtaan ak ñoom ils vont se constituer parce que bu buñ ci tax am beneen analyse euh, ñoom bu ñu génnee ci législative yi ku nekk da ngaa taxaw ne man maa ngi def suma tournée Malick Gakou mu ngi def tournée am euh, Bougane mu ngi def tournée am Sonko dina def tournée am Macky dina def tournée xam nga nu mu ngay defee. léegi léegi ñu indi la tournée économique. Mhm. Mhm. duñ ci yem nee na conseil de ministres décentralisé. ñan lay recevoir su demee si conseil des ministres décentralisé bu demee ci gox goxaati tournée économique bi dee ko dégg ce sera une tournée aussi politique donc yow munuñu toll foo xamante ni dañuy delluwaat ginnaaw démocratie ay jéego la mooy li may wax encore une fois seen affaire de gentleman accepter. les même droits que nous nous avons keneen ki moom aussi même droit yi la am de l'exercer ah, alors sëñ sëñ Bamba euh, mais est-ce que nekkuñu ñoom ñëpp quand même di def une campagne électorale déguisée bien te des na lu toll ci fukki weer ak juróom xam nga Sénégal mooy réew boo xamante ne yow chaque jour yaa ngi si campagne dafa am ay campagne officielle ak en campagne officieuse comme déguisée bi nga wax mais politiciens yi du matin au soir de janvier ba dernier mois de l'année si campagne la ñu nekk et eh, dama jàppoon na sax mën nañoo gën a jàpp si combat bi quoi jàpp si combat bi mooy li ngay yàgg wax askan boo fa demee leen lay wax mooy dëkk bi métti na dund bi seer na jafe-jafe yi na ndox mi manqué ne fii courant amul fii fii fii nii eh, école bi baaxul hôpitaux bi baaxul ñoom xam nañ pour man <laughs> ñoom politiciens yi xam nañ jafe-jafe askan bi mais fi mu toll nii occupation du terrain moo leen gën a soxal mooy kenn ku ne jéem a ndeysaan andiwaat message d' espoir askan bi gën a yaakaar si yow pour ëllëg après ñu sànni wàlla carte ginnaaw suba nga andiwaat waxaat fii ne non loolu du ma ko mën contexte beeg maa ko waxoon waxeet ak yu ne jaar na fi yu ne jaar na fi alors boo demee si nga xamante ne mooy si si village yi. waaw moom laaj la nappkat bu demul géej xanaa aussi euh, mënu. waaw waaw d' accord. donc le politicien. waaw qui veut aller avoir des électeurs. il faut mu d'accord mais nappkat boobu aussi xanaa bu demee géej gi lu mu dee dee dana àndaale benn coof wala dara wala yabooy mais chaque jour nga napp tamul soo andi dara. waaw léegi man nappkat boobu xanaa bu demee au moins daan il va à la pêche aux voies joof wala yabooy mais nappkat boo xamante ne chaque jour nga dem napp ji waaw mais ma ne déggoo na tontu naa la de dama ne nappkat boobu waaw mais ma ne xanaa nappkat boobu tam bu demee même bu demee géej au moins lu mu dee ba dee ba néew ba mënta andi coof andi yabooy dina andi coof wala yabooy nappkat bi buy dem dina xam ban waxtu lay dem. waaw mais yow sax su nga napp. métaphore laa la je sais que c'est une métaphore laa la on t'a répondu avec une métaphore. c'est-à-dire tu verras pas un homme politique mu dem jàkkaarloo. génn ba ca pànkaan naan day wax ak. pourtant yow yow dégluwul li la wax yow dégluwul li la wax de dañ na la. Ah. campagne su campagne chaque jour même message yi même discours yi. même campagne li ma ko waxee dama ne. ñëpp tourné ma ne waaw tourné boobu xanaa bu yàgg nga miir nag bu yàgg da ngay miir xanaa ñoom miiru guñu xanaa yow doo déglu li lay waxee ma ne xanaa yow nga tourné xanaa nag nga tourné bu miir ñoom miiru guñu mais géej gi yaatu na kii onze la am kii mbaal la am nañu bàyyi ku nekk mu dem ca la muy dem waaw mais 2024 nit ñi àtte dama ne waa léegi yow man maay mais keneen du tourné waa léegi la cité lan lañ gérer ñoom lan lañu gérer lan lañ fi gérer lu dul ay message discours jëriwuñ fi dara. sa taxi ku koy gérer. la de gérer. ma ne waaw fi gérer nga tabax seen kër fan ngay dem. ma ne ñan ñooy gérer la cité c'est les hommes politiques. yow yaa fi wax waxi kër yow am nga kër yow. kër dafay amat da nga ne la politique c'est l'art de gérer la cité. lan lañ fi gérer gérer. bàyyi ma yow pour nga jógee yëmbal ñëw fii. Hmm. oto bi ngay jaar daa ñu koy définir politique boobu ñoo koy tracé teg ko pour nga jógee yëmbal gee jóge fi jaar ci télé bi VDN3 c' est des jël alalu réew mi jaay ko gerte caaf ñoom ñoo koy gérer. ma tontu la wala. ñan ñooy gérer li la cité la cité bi nga nekk nii. Hmm. règle yi fi nekk. Hmm. ak tëralin bi ak doxalin bi ak budget Sénégal bi ñuy seddalee lii fii la jëm. loolu mooy l'art de gérer la cité. ma j'aime bien voilà. waa cité boobu nag la ñuy jaay. amatul dëkkuwaay amatul fenn fu mu dëkk waaw ma ne damay bàyyi ma tontu parce que dama laa bàyyi dama am élégance bàyyi la nga wax boobu dama ne cité boobu ils ont mal géré la boobu la jaay ba kenn amatul foo dëkk cité boobu nag hôpitaux yi fi def ay egg dee la cité boobu xale yi fiy jàng école yi xoolal amul benn table banc yaa ko wax léegi lii si li moom laay fi mu ne ferraille la loolu laa lay expliqué boo ma déglu di dégg dama ne merci beaucoup dama ne xanaa mënoo chaque jour ngay tourné kii tourné di tourné chaque jour bu yàggee di nga miir au moins xanaa war ngaa mën a si benn tourné nga mën a xam jafe-jafe askan bi nga àndaale ko jéem a fexe ba fànq ma ne ki nga wax sànq mu ne day dem napp ji xanaa boo napp ji yàgg napp bu yàggee au moins lu mu néew bu ne boo mënta andi jo coof andi yaboy mais mënoo chaque jour boo nappi jee ñëw ne andiwuma dara suba dinaa nappiwaat mënoo chaque jour boo demee ne il askan bi def tournée jéem a xool dund boo ñëwee ne dans deux mois trois mois dinaa defaat tournée cest à ñoom fi mu toll dañoo nekk si ñoom seen installation politique seen i schéma politique ñoom si bopp nappkat bi xam lu mu bëgg moom xam war ñëpp ne man nappkat laa waaye moom coof tax koo jug yaboy tax koo jóg dama la bëgg ne politiciens ñoom seen yëpp mooy maa ngi fi waaye askan bi seen yoon nekku si ñoom kenn du ko dindi. mais mais Fat baal ma je crois que Bamba soit on parle pas le même langage. peut être dañoo déggoowul mën na nekk. ma quand je parle de bi may tàmbali dama ne la euh, un homme politique am na koo xam ne day toog. nekk opposant jël cravate toog ci biroom di bind communiqué boo bëggee dara daf la koy jaral mag ki dafa wane yoon bi bi gars yi nekkee fi place de l'indépendance toog fi Macky dafa jóg dem seeti sénégalais duggante ak ñoom defante ak ñoom Bougane résultat yi mu mujjee am nii bu toogoon fii cité kër góor gi biroom du ko am ah. au début doon recevoir ci ay bureau après nan la def dafa dem wàcc sur le terrain dem massifier wut ay nit renforcer boppam Ousmane Sonko da jógul rek li ni napp boobu ngay wax c'est la pêche aux voies xoolal fan la commencé xoolal élection yi passé ça veut dire que la pêche était bonne quand je parle de pêche c'est c'est de dire la pêche aux voies sénégalais lu mu xam empathie yow gis nga fi ñëw Abdoulaye Diouf Sarr bi ngay wax demu fi woon sax di di saaf gerte Abdoul mbay dugg fi sax ci ay tata loolu yëpp il faut ñoom ñu dem à la rencontre des sénégalais et des masses cest à dama ne la. man politiciens yeeg yëpp ñi ngay wax ñëpp laa yemale dama ne la waa nguur gi may nañ leen liberté ñu def seen activité politique benn préfet du ko interdire boo faree ci nguur gi may nañ la nga tourner dem fu la neex mais yow ci kujje gi rek la ñuy gis ñuy def tournée tuddee ko nu la neex tournée wëndeelu mbaay mbaay euh, xalangu nu la neex mais yow li liberté bi ñu may ñi bokk ci nguur gi nañu may même liberté boobu man deux poids deux mesures boobu laay wax par contre euh, li ngay wax ak Euh, je suis d'accord avec toi tey am na yeneen situation xam moo nekk suñu ay priorité et nit balaa nga koy dogalal au moins di nga dem nga lu ko dégg ko mu wax la doléance sama xalaat. man man non man la foofu pour avancer man la foofu mooy mooy ma ne merci merci ba merci ma comprendre parfois nag. non ma la parfois jafe-jafe mooy parfois jafe-jafe mooy dina dégg de waaye yow ñu dul dégg. Hmm. loolu mooy jafe-jafe parfois dama ne li ma c'est éclair dama ne je ne suis pas contre les mais c'est la énième tournée ab euh, Omar boo bëggee dégg-dégg. qui voyage loin mais la waaw c'est la énième tournée en tout cas. ma ne c'est la ma ne c'est la énième yi ma ne defoon nañu fi mën naa ne foofu rek. 10 5 secondes. nañu fi tournée. xam nañ jafe-jafe askan wi ñu jóg fu ñu dàbbali defal li nga xamante ne mooy tournée si wàllum législative ma ne au moins war ñoo jëm fexe ñoom kenn ku ne si ñoom politiciens yëpp na nga koy waxee noonu laa taxawee man nekkuma fi si ay li nga xam mooy schéma politique man nekkuma fi si benn politicien man muumuma man nekkuma fi si ay opposition wala ay pouvoir xam nga lu may wax waaye dama ne la politicien bu si jug

lépp solo mooy que ni dañoo war a respecter li nga xamoon ne charte ndeyu réew mi moo ñu tënk ñu ñëpp mu di constitution bi. Mm-hmm. article neuf constitution bi moo jox sañ-sañu doomu Sénégal mu dem ak a dikk tey si biir charte ndeyu réew moomu itam bu ñu tuddee parti politique ak si yeneen i loi ak règlement dañu ne parti politique lay sañ-sañam mooy la quête du pouvoir. Mm-hmm. quête du pouvoir boobu nag moo may sañ-sañ parti politique ku ti doon ak leader politique bu munti doon nga war a mën a def li nga xam moo di tournée de massification parti politique leader bi nga xam ne dafa de déq si jongante boo xam ne élection présidentielle la ala kulli àll di nga dem seeti nemmeeku si say say militants di nga dem nemmeeku say sympathisants di nga dem jéem a convaincre sénégalais bi nga xam ne farul ak yow te loolu daal moo la koy may mooy nga jóge ndakaaru dugg Kaolack dem Sédhiou mm. dem Kolda mm. dem Tambacounda mm. dem Orofondé dem Bakel dem feneen ak feneen si réew mi ngir mën a gën a yaatal li nga xam ne mooy say say kii ce n'est pas pour rien que président Macky Sall si réunion secrétaire exécutif national APR bii ñu génn mu joxe directive ni damaa bëgg ngeen place ma un million cinq cent mille cartes un million cinq cent mille cartes yooyu lool mais c'est pour une autre forme de massification de la terre parce que dañuy def animation à la base animation à la base yooyu sa koñ la tàmbalee mu di ay comité comité yooyu ñooy jóg si beneen instance instance bi jëm si beneen instance sous la supervision des commissaires yi nga xam ne ñoom la ñu tànn tabb leen ñu war a def li nga xam ne moo di ko donc autant de fois que possible autant de fois que de fois possible Ousmane Sonko Bougane Gueye euh, euh, Malick Gakou euh, euh comme si mënti neex autant de fois laa wax et quel que soit le nombre de fois. Hmm. fii la ñuy jëm 2024 bu la neexee nga def dix fois le Sénégal. Quand est-ce qu'ils auront non le temps de travailler moom mm, mm. xam nga da nga ne laa de faire la politique ndox bi dund bi je crois bien que Macky Sall de 2008 quand il a démarré sa sa sa tournée mm. jusqu'en 2012 dama bëgg a génneel ma benn robinet wala benn borne fontaine boo xam ne nañu l'opposant moo ko tabax l'opposant dafa amoon mébét la mu doon gis mu manqué ci ndox mu manqué ci courant mu manqué si leen moom bu ñëwee si nguur gi xam na lu xew mu jëm si andi li nga xam moo di saafara ce n'est pas pour rien que yow yaa ko tudd mais Bamba bi ñu koy wax c'est-à-dire cortège bi dem yi nga xam ne yaa ngi koy dégager dem ci gox boo xamante ne amuñu sax lamp wala amuñu ay amuñu amuñu sax mur ci post de santé bi yow mi nga xam ne da ngay déplacé wu dem ci gox ba soo mënee aussi jàppale eh, ils sont au courant de ça Fatou ils sont au courant xam nañ ko te xam nañ ko te am nañ ko te xam nañ ko

du tout à caractère déséquilibré je suis désolé de le dire ce n'est pas tout le monde ki léegi nag ku am sañ-sañ ak moyen def ko dañ lay tàccu ne la gàcce ngalaama ça c'est un exemple oui ko mën def ko d'accord mais dama ne encore une fois ces gens-là qui font aujourd'hui des tournées ils ne feront pas le même geste partout Bougane il ne va pas construire des salles de classe dans toutes les localités qu'il va visiter parce que moyen tollul foofu mais ba tam su ma defee benn geste su ma eggee man su ma demoon ba sénégalais tabb ma tout ce que li nga xam tàmbali naa ko dama koy tàmbali parce que su boobaa nag je j'aurai les rênes du pouvoir maay yore gafa man maay dérouler la politique de la nation kon su boobaa dama koy def kon ñii wut ñi nga xam ne ñooy tourner en réalité ce qu'ils cherchent c'est quoi c'est massifier leur base ce qu'ils cherchent c'est quoi c'est faire connaître et c'est mieux se faire connaître ah ce qu'ils cherchent non ce qu'ils c'est avoir autant de militants c'est d'avoir autant de sympathisants ce qu'ils cherchent c'est c'est véritablement de montrer de dérouler li nga xam ne moo di li nga xam ne moo di seen contenu programme sànq yan yan nga wax da nga ne tekki jot na ku mam tekki jot na coalition gëm sa bopp gëm sa bopp mhm. moom kan moom moom waa Pastef du Pastef ak Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen donc seen biir programme yi mais na ko Sénégalais yi liir donc Bougane ak Ousmane Sonko ak Malick bu ñu demee seen continue programme boobu lu ñu bëgg ci ndox bi mi ngi si seen programme lu ñu bëgg si courant bi mi ngi si seen programme lu ñu bëgg ci emploi mu ngi ci seen programme donc ñoom bés bu ñu eggee fii nga xam ne mooy ci cappaandaw gi maanaam yegg si au sommet du pouvoir nag su boobaa li nga xam ne mooy seen continue programme loolu mooy am mébét pour ko dérouler ba nga xam ne sénégalais bi dina ko yëg dans quelques circonscriptions que ce soit dans quelques localités que ce soit mais quand on dit l'opposant ce n'est pas à lui de gérer la cherté de la vie. L'opposant, ce n'est pas à lui de régler les problèmes d'assainissement ou bien itam dans l'opposition il y a parmi eux des maires il y a parmi de responsabilité à travers waaw fu nga xam ne fa la ñu ne mais dans ces localités ñu ngi fay def liggéey parce que am nañu poste de foofu ñu fay def liggéey bu mucc ayib mais le maire de Dakar ne va pas ne va pour prendre la place du de Kaolack mm. il faut quand même que l'on soit conséquent avec nous-mêmes de pouvoir jusqu'à son arrivée au pouvoir en 2000 d'opposition jusqu'à son arrivée au pouvoir en 2000 est-ce que Abdoulaye Wade daan nga ko dégg ñu naan la mi ngi tabax ay école ak ay lycée parce que dafa am loo xam ne ko doon defaan comme idéo am loo xam ne du ko bëggaloon Sénégal am loo xam ne fa nekk si programme mu bëgg ko déroulé lan moo ko doon may mooy jox leen ma nguur gi ma mën ko déroulé donc ñii di def tournée itam xam la ñuy xaar Sénégalais convaincre leen pour ñu jox leen les moyens d'arriver au pouvoir pour dérouler le programme à travers Tekki à travers Focus 2024 à travers tout le programme alors ça ça le que euh, tournée politique yi ñoom dañu ko convaincre euh, confondre sax ak campagne électorale dem gis foule bi dajaloo euh, gàttandu la nga foog ne yaa ngi ci campagne euh, ba jàpp ne actuellement nii yow boo demoon tey élection mën nga am euh, victoire. waaw campagne la bu ñu dul woowee campagne campagne ay baat la njeexitalu campagne mooy li ñuy jëf. Mhm. Euh, li ñuy jëf bu ñu def campagne mooy dajale nit ñi di dagaan seen baat. kon tey bu ñu jógee dugg ci àll bi bu ñu dajalee nit ñi dañuy waxtaan ak ñoom di leen waajal ci li nga xamante ni si moom mooy seen ëllëg moom la ñu bëgg moom la ñuy xaar mu doon njeexital bu ñu leen joxee réew mi fi nga xamante ni si foofu lañ toll euh, président Macky Sall dafa leen jox euh, dafa doon muse ci ñoom dafa doon maanaam royukaayu politique ci ñoom ci ci doxalin ndax bi nga xamante ni si euh, génn na ci nguuru PDS dafa wër Sénégal di waxtaan ak nit ñi dema dema dema dem ba ci ruqi ruqaati réew mi mm. ñoom boo leen waxee Macky rek lañ xam tur bi ak photo yi moom la ñu xam tey jile ñi nga xamante ni si <laughs> ñi nga xamante ni si tey ñoom la ko seqal mm-hmm. ñu gis ni loolu noonu daf ko defoon tey bi mu demee ba doon jiitu réew am na beneen fànn bu mu koy defee euh, saa yu élection présidentielle di jub dina wër réew mi dina am doxalin boo xamante ni moom lay doxal te ñoom ñii xam nañ ni amuñu appareil politique bi nga xamante ni moom moo leen war a yóbbu tey ci ñu mën a am yenn dayo parce que Ousmane Sonko pré participation président Ousmane Sonko 2019 euh, ñu bari dañu ne woon dañuy natt xool fu ñu toll waaye bokk gi du woon ngir jël bopp réew mi donte mooy mébétam njeexitalu politique euh, bi nga xamante ni si nag am na doole ji am na dayo bi fi mu toll nii il faut mu wuti ji appareil maanaam mbooloo moo xamante ni si boo jëlee six cent une communes yu Sénégal yi quarante six départements yi mhm. foo ci dem dina fa am loolu ñu naan cellule secteur section créer fédération pour mën a am appareil politique bi nga xam ne mooy ossature bi nga xam ne moom lay taxawal ci wàllu politique ba centre bu nekk mu mën faa am ñu ko fa teewal bu yegsee ci élection yi te am ay points focaux yoo xam ni buy wër réew mi ñooñu ñooy doon ay répondant am mm-hmm. moo tax il a tellement compris que président Macky Sall va vers une troisième mandat euh, va vers un troisième mandat que tax moom mii mu daal tàmbali doxal nemmeeku tuuram tournée yi dina gën a bari ndaxam xalifa Sall dina lancé tournée parce que qu'il sera candidat en 2024 moo ko wax. Mhm. keneen ak keneen dina lancer nemmeeku tuuram. Euh, léegi nag li am solo te doon njeexital gi mooy xool ëllëg gi fan la ñuy fan la fan la nit ñi di féetewu mhm. ndax nit ñi dañuy ànd ak nit ci euh, cofeel wala ñu ànd ak nit ci émotion wala ñu ànd ak nit ci yaakaar léegi nag jot na sénégalais yi di ànd ak nit ci programme. Mhm. ci li nga xamante ni moom lay tëral yaa ngi koy wax président Bougane Gueye Dany dafay dox ci wàllu social bu doon prix Socrates bi ñu jox Sadio Mané dafa am ci wàllu politique moom lañ koy jox parce que mu ngi doxal social bu baax a baax ci biir politique mais dafa am leneen loo xamante ni si mooy tax tey politique bi bu jugee rek mën a am ay répondants un partout loolu ci lañ nekk Ousmane il a compris que ni bari nañ ñu koy topp di ko jàppale mais ils sont dans moo tax mu leen bàyyi leen foofu ngeen dem sur le terrain dinaa ñëw ci yéen wàll bi il il a bien compris que Mbour ak Ziguinchor dañu niroo culture parce que fekkaan courant daf fay am nangam sàngam dugg si na foofu noonu xalifa oh, euh, nu mu tuddati Malick Gakou di mu ngi ci tournée président Bougane Gueye Dany dina def tournée mu ngi ci biir tournée keneen ak keneen dina def tournée président Macky Sall mu ngi wax carte yi nga xam ne war na ko jaay <laughs> léegi carte yi ngay placer pour lan la pour créer appareil ah, pour créer appareil rek mhm. bu taxaw parce que boo xoolee ci nomination yi président Macky et est en train d'apériser toutes les institutions yi nga xamante ni daf ko joxoon allié yi tey jii mu ngi jël ay nit yu bokk biir APR di leen ko jox. di kon yaa ngi xool ni mu ngi teg appareil boo xamante ni si appareil bu APR lay doon parce que am na foo xam ne ànd na fa. ak sa coalition ba toll fa te c'est une probabilité que bu waxee waxu troisième candidature ñooñu daal di koy bàyyi mais bu fekkee mu pré mu placé ay kartam ba teg appareil am bu ba jël waa APR jox leen ay responsabilité ñi alliés yi bu ñu génnee du ko tere mu am taxawaay bu dëgër boo xamante ni dina tax mu mën a jàkkaarloog ñi muy ñi mu fas yéene jàkkaarloog kon da ngay xam ni rek njeexital gi mooy waajal jongante yi nekk ci suñu kanam nu ko nit ki nag defee mënees na ko nangu Abdoulaye wax na la ko ci constitution bi may na bépp doomu Sénégal muy dem ak di ñëw ak tamit dem di waxtaani ji ak askan wi li ñu ciy ñaawlu rek mooy ñu bàyyi leen ñu circuler librement ñu bàyyi leen ñu dem ci li ñu bëgg a dem dellu si ci li ñu bëgg a dellu si réew mi ñun Sénégal njaay la tudd sénégalais yi ñoom ñoo ko moom amul ma sàmba war ngaa dem fii wala waroo dem fii nii dafa judd fekk ñu di ko woowee noonu donc nanu leen bàyyi ñuy doxal seen mbir euh, ngir njeexital gi doon jàmmi Sénégal Abdoulaye mu ngi koy wax sànq ba tey damay jëlaat kàddoom di ko indi dama bëgg ñu bàyyi xel ni ci jàmm la ñu mën a defaree am réew ci jàmm lañ mën a taxawee am réew ci jàmm lañ mën a yóbboo njeexitalu suñu réew fi nga xamante ni moom la ñu bëgg ba mu wuyu ji ci woote bi nga xam ne àddina mu ngi koy woote ci jëm kanam ci defaraat gox yi ci defaraat hôpitaux yi ci defaraat école yi ci defaraat daara yi ci taxawu nit ñi loolu nag il faut que nit ñi def ay nemmeeku. di déglu nit ñi ñu leen di wax ñu koy jël. di ko mën di waajal. ngir bu ñu yeggee ci bopp réew mi wala ñu ne ci bopp réew mi jël ko doxal ko comme année sociale la nan jàpp ni rek njeexital gi dana doon yëg-yëgu askan bi. ci seen boppam on ne décrète pas ex nihilo une année sociale <laughs> ah. on ne décrète pas ex nihilo une année je crois bien que c' est véritablement des ah. c'est c' une méthode c' est mm-hmm. une planification encore une ah. fois. j'ose espérer que ni année sociale bi effectivement retombées et dès le mois d'octobre comme ni ñu ko annoncé woon lors de l'installation du gouvernement loolu defe naa ni sénégalais ñoo si profité mais sànq da nga ne candidature Khalifa Sall mm-hmm. candidature euh, Karim Wade mm-hmm. euh, Cheikh Omar je pense que le le débat autour de l'amnistie et la loi probablement sur l'amnistie ak moyen bu ñuy wut pour que ñeñ bokk ñàkk seen àq ak yelleef mën a recouvrer seen droit civil et politique ça ne doit pas être également un cadeau le cadeau empoisonné c'est quoi on ne doit pas dépasser le mois de janvier 2023 te defuñu créé wuñu les conditions ñëpp xam ko pour que Karim Wade ak Khalifa Sall mën recouvrer leur droit civique et politique vous savez pourquoi parce que itam plus muy leen di gàllankoor sur le boo leen fekkee ni da nga leen amnistie bi boo fekk jàll na wala contourne nañu code collatéral bi ñu recouvrer seen droit civil politique tardel ko loolu tardel ko tardel goo xam ne on est à quelques mois près de l'échéance euh, électorale prévue en février 2024 mais ce serait un cadeau un cadeau empoisonné parce que ñoom seen wàllu bopp kii du xam fu muy féetee est-ce que dina am am mébét ak xel ak xalaatu def la def une tournée à l'image véritablement de ces potentiels candidats yi nga xam ne aujourd'hui ñi ngi sur le terrain kii nga xam ne tam buñ war na jógee dëkk ñibbi si dëkkam amaana bu dee candidat la mën a itam euh, def li nga xam ne moo di campagne je crois bien que yooyu yëpp tam il faut ñu kii ko moo tax je plaide pour que véritablement non non non non d'accord pour pour pour la réhabilitation de Khalifa et de et Karim Wade parce que tout simplement euh, pour man affaire u gentleman la ñëpp war a bokk mais par contre je ne suis pas contre l'amnistie mais si on ne elle va servir. je suis ont été faites parce que l'amnistie c'est sur le temps aussi. je suis parfaitement d'accord. donc moo tax ma ne la quel que soit. bu ñu utiliser. Hmm. mais itam il faudrait pas que amnistie bi nekk un cadeau empoisonné. Hmm. parce que itam euh, da ngay ñaari potentiel candidat yoo xam ne effectivement euh, par rapport ak ñenn ñi dañuy dañuy am longueur d'avance bu sori. Euh, ak ñi nga xam ñoo di si ay seen ay ñooñ. donc bu fekkee ni véritablement dañoo bëgg euh, euh, defaraat langue politique bi mu gën a ubbeeku mu gën a leer te l'autre l'autre élément itam ñu ngi koy wax si campagne yi ne mais ko tour on retient trop l'attention autour de cela mais je dis encore une fois que ni pouvoir opposition ak société civile mambamba dañoo war a lëkkaloo xoolaat li nga xam moo di processus électoral bi de manière générale. dañoo war a lëkkaloo ngir xoolaat li nga xam ne moo di loi parrainage bi parce que loi parrainage parrainage bi tam mu ngi fi ba tey te dara soppeeku aussi te ñi ngi jëm si li nga xam mooy atum 2024 kan la ñuy filtrer kan ban tamit la tamise kan la ñuy tamiser encore ba nga xam ne doo jàll li nga xam mooy filtre bi y a énormément de sujets moo tax sànq boo waxee ma ne la ñaar ñele bu ñu wootantee bu ñu waxee itam li nga xam ne moo di jàmmu Sénégal jàmmu Sénégal si loolu rek si loolu rek la la lëlu mooy que ni ñu am véritablement une démocratie performée beaucoup plus performante surtout surtout par rapport ak li nga xam ne mooy la démocratie électorale parce que Afrique fa la lajjee. et d'où la nécessité même d'instaurer un dialogue franc direct. ou entre les acteurs du jeu politique ñu déggante sur les règles du jeu. voilà tey y' a beaucoup de yoo xam ne am na. te réglé guñu ko et loolu pour ñu régler ko il faut au moins am ay personnalités fortes yoo xam ni mën nañu fexe ba ñëpp se retrouver autour de la temps pour régler yenn questions préalables. waaw mais je reviens par principe pour Euh, ni nguur gi amee sañ-sañu déplacé wu dem fu ko neex ñi nekk ci ko gi noonu lañ ko amee sañ-sañ man li may bañ mooy ku am nday ku ma amul nday ku bëgg a tourner yaa xam da ngay wëndeelu wala dangay ngay daaj përi nañ la bàyyi nga dox say activité point barre beneen bi comme tu parles de du social au-delà même de de de l'État j'invite les Sénégalais en tournoi à faire du social nañu dimbalante parce que école ubbi na bëri na xale yoo xamante ni tey seen seen waajur seen moyen demeewul noonu laay léegi école publique inscription ça varie de dix mille ba vingt cinq nga jóg ñu ne la saak jógati ñu ne la livre cahier donc képp koo xamante ni am nga benn cahier wala am nga sa benn livre doom koo mën a dimbali mu nekk sa dëkkandoo ku nekk xam nga ki la jege te nekk ci yenn situation yi nga mën ko dimbali Saliou Joseph euh, sa sa sa xarit bi Baara Gaye Euh, école bi nekk Mbacke Cheikh Anta nekkoon abri provisoire. Hmm. ñëw na de ses propres moyens defaat ko donc ñun loolu la ñuy xaar ci Sénégalais yi nga xam ne yàlla dimbali na leen il faudra véritablement euh, être au service de l' école sénégalaise et des eh, Sénégalais. li ma bëggoon wax si li ma bëggoon wax si. Eh, ku nekk daal mënal nga sa bopp. bamba sa koñ peut être am na xale boo mën a jëndal benn kaye. wala benn benn livre. Hmm. Euh, j' tout le monde ku nekk jàppalante. parce que valeur sénégalaise bokk na ci solidarité. c' est Eh, Fatou pour revenir si eh, si li nga xam mooy eh, seen tournée yi nga xamante ne moom la homme politique yi def man je l'appelle comme li ma ko waxee encore une fois je l'appelle euh, des campagnes déguisées encore une fois parce que dama jàpp ne je parle des hommes politiques que ça soit mu nekk ñi nga xamante ne ñoo bëgg nguur gi mu nekk ñi nga xamante ne aussi moo nekk si ñu nekk si nguur gi parce que li ñu def yëpp c'est fait à dessein mooy réellement comme ni nga ko waxee Abdoulaye Mbow mooy bu ñuy def ay tournée yëpp di waxtaan askan bi di def li nga xamante ne mooy saafonte nemmeeku wala li nga xamante ne mooy jokkoo wala waxtaan lépp seen image la ñuy jéem a defar mooy ñoom dañoo bëgg ñu gën leen a xam Sénégal njaay yëpp xam leen ñu teg ay programme gën a suuf susciter espoir te dama jàpp ne aussi il y a un un temps la campagne il y un temps pour faire la politique il y aussi un temps pour travailler te xam nga boo gisee ma foofu c'est Omar mooy réewu Sénégal on parle trop on débat trop on fait beaucoup de politique mais on travaille peu hmm. d'ailleurs sax bëgg de moo Ndiaye rapport ANDS dañoo ne li nga xamante mooy Sénégal waaw man de xam nga ANDS laay wax. parce man waaw waaw xam nga waaw man de xam nga man fa laay wax waaye mais dama ne. waaw xam nga lu tax dañoo wax dañoo wax ne parce que ma dama xam parce que ñoom parce que ñoom man li ma soxal mooy askanu Sénégal moo ma soxal. parce que man damaa xam li ñuy dund. parce que damaa nekk dans la ma ma daaneel ko foofu quand même ñu ñuy politique. Hmm. tout le temps ñu ni waxi politique. ay meeting ay dialogue ay il faut il faut un temps pour travailler. Hmm. même yéen boo leen bëgg def seen image may leen xale yi may leen askan bi ñu au moins ñoom liggéey parce que saa boo ñëwee si ñoom am nañu ko bàyyi liggéeyam am nañu ko bàyyi jàngam. alors très ñu ay ngoon mais nañu may tuuti ñu dem liggéey. il y a un temps pour la politique il y a un temps pour travailler. il faut travailler toujours travailler. merci beaucoup merci